mu mel ne tey nag ñu ngi fii ci palais bi tubaarkàlla ci kër gi nga xamante ne moom la alaaj mu lay Sow dëkk maanaam muy clinique bi nga xam ne tubaarkàlla moom la jënd ci deux cent quarante quatre millions tubaarkàlla réceptionné ko def ci valeur deux cent cinquante millions tubaarkàlla changé li fi nekkoon lépp tubaarkàlla alaaj Thierno Mouleye Sow tubaarkàllaa ngi noonu nag di doog a dugg si tubaarkàlla borom social ki nga xam ne tubaarkàlla mooy borom jinne waaye ki nga xam ne tubaar tubaarkàlla mooy sëtu sogolon ak yoro tengala ak tengalaa tubaar tubaarkàlla mooy ki nga xam ne ndeysaan ah boo ko waxee rek àdduna yëpp xam nañ ko ndaxte tamit tubaar kàll monté na li nga xamante ne mooy ay preuve am fii ci Sénégal tubaarkàlla ci wàllum faj tubaar tubaarkàlla ngeen gis ko tubaar tubaarkàlla mu def li nga xam ne tubaar tubaarkàlla moom lañ tuddee ndeysaan consultation gratuite édition bii weesu tubaar tubaarkàlla ñu waroon koo def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla dogal mu fomm mu def ko quatre fois bi nekkoon cinquième édition bi tubaarkàlla waaye sunu borom dogal nag antuwul ndax yëngu-yëngu dëkk bi ak xew-xewi dëkk bi tubaarkàlla kon sëriñ bi ñu ngi lay wax bisimilaay tubaarkàlla fii nag ñu ne tubaarkàlla mooy palais bi fii nag tubaarkàlla ci cité jiili mbay fi nga xam ne tubaarkàlla mooy troisième étage tubaarkàlla alaaj ceenu mu lay sow ngi noonu tubaarkàlla ngeen gis euh, sama nattango yi noonu tubaarkàlla ma jox doyen Abdel Aziz voilà merci donc euh, chers amis Merci encore une fois de plus les téléspectateurs qui sont nombreux devant leur poste pour suivre enfin enfin cette grande émission muy li ci jinne li ci jinne nag la particularité ñu ngi ko tourné fii Matar wax na leen ko léegi en introduction dans la toute nouvelle clinique située à la cité Djily Mbaye et pour ceux qui connaissent nous sommes au troisième étage alors ngeen gis ce joli décor dans ce luxueux salon loolu nag defe naa ne mag ñu njëkk ñi ku leen woowoon yee leen fa ñu nekk ñu ne leen am na un médecin traditionnel qui s'est payé le luxe d'acheter un immeuble à trois cent million duñ ko gëm loolu nag kan moo ko réussir mooy celui qui a réussi à hisser le niveau de la médecine traditionnelle à un niveau jamais égalé buur jinne yi bi the king of the all the king le phénomène universel tous les surnoms von directement vers El Hadj Thierno Moulay Sow mu ñëw nag ne damay def émission li ci jinne nga xam ne c'est son émission préférée une émission qui est réclamée par les internautes kii est réclamé par les téléspectateurs, kii est réclamé par les talibés, qui est réclamé au Sénégal, en Afrique et partout à travers le monde. muy émission inaugurale li ci jinne fii ah ma fas yéene ci ànd ak les professionnels de la communication qui son de la maison Moustapha Fall on ne le présente plus qui est là pendant plusieurs années pour avoir accompagné le marabout dans toutes ses activités. Mais aussi Matar, c'est vrai que lui, je le disais souvent, il est en transversal, c'est l'homme multidimensionnel. Il a été d'abord de la sécurité, ensuite chauffeur, et cette fois-ci, il a rejoint la communication et travaille à côté du marabout. mais aussi c'est un honneur ñu dalal fi koo xam ne tamit du gan ci émission bi parce que am na émission yu mu participé ci li ci jinne tey bi sëriñ bi ne il ma faut un chef du desk religieux yàlla boole kook jëmm ju baax ci am xam-xam lool te yéwén ci xam-xamam lool muy oustaz ma ko wax oustaz imam Babacar Dièye kon nag voilà le décor auquel nous avons droit ce soir ici pour la reprise de l'émission li ci jinne le marabout superbement habillé comme il a l'habitude de le faire kan en or bi nga xam ne nii dootu ko <laughs> présenté les iPhones en or tout est en or et le chapelet bien sûr sëriñ bi nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan namoon la trop nag sur la TMS TV. jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin a unju billahi min ashaytaani rajim wala hawla wala huwata illaa billa alay azim gannaaw ba ñu santee suñu borom nag ñu ngi julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën di mbindeef di suñu yaakaaru tey ak ëllëg gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna bi gënal ñu suñu jëmm ji gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay gënal ñu lépp lu ñu am muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am kontante ak mbégte lool macha allah doyen ci émission bi mooy émission li ci jinne bi nga xamante ne namoon nañ ko lool sax xam naa ne war nañ toog six mois wala sept mois te defuñu ko ndax ñàkk jot bi di nuyu Moustapha Fall macha allah di nuyu Matar le grand tiktoker di nuyu oustaz Babacar macha allah imam ci xam-xam bu sell bi macha allah di nuyu ñëpp nag ñi ñuy seetaan à travers TMS TV vraiment di kontaan bu baax a baax ci occasion bi ngeen ma may dalal ma ci émission bi nga xamante ne suma émission la mooy li ci jinne mhm. nga xamante ne doomu aadama yi namoon nañ ko lool sax vraiment saa su ne dañuy woote di laajte sëriñ bi. émission bi li ci jinne bi déggatuñu ko ndax da nga daan jàngale di yeete di wax waaye ñàkk jot bi la parfois ñu xat lool nag waaye nag macha allah léegi moom xam naa ne dinañ ko jaayante macha allah chaque quinze jours dinañ fexe daal incha allah ñu ñu ñu jox leen benn li ci jinne macha allah di am kontaan ak mbégte lool nag di nuyu suma soxna madame Sow la reine di nuyu suma doomi prince 1 prince 2 macha allah di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à travers TMS TV di am kontaan ak mbégte di nuyu suma taalibe nekk partout dans le monde association Thierno Moule Sow famille Daarulahi international di leen nuyu bu baax a baax mule mule yi di sumay taalibe di nuyu faa Fabakary Sonko jëwriñ Gallo Sow jëwriñ Dikel Sow jëwriñ Fama Sow di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo seetaan à travers TMS TV di ñëw ci Sénégal di nuyu jëwriñ ajaratu Khady Ba jëwriñ ajaratu Khady macha allah jëwriñ euh, Galaay Sey di nuyu ñëpp ñi ñi seetaan mule mule mu munuma lim ñëpp di dem Sénégambie di nuyu Marietu Maane Alsaan euh, di nuyu Alsaan Sila bàyyiwuñu kenn di dem Mourtane aussi di nuyu ñoom Mariet Mariam Sow defe naa ne démb la ñu fi quitté di nuyu mule mule yëpp di nuyu ñu ñuy seetaan di kontaan bu baax doyen di la nuyu di la ñaanal jàmm di nuyu ñu seetaan di am kontaante ak mbégte naan la bismillah macha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf merci pour l' introduction Moustapha Fall nga nuyoo ak téléspectateurs yi seetaan la TMS TV. jërëjëf euh, doyen Abdoul Aziz ngi am kontaante ak mbégte euh, di toog fii ci euh, clinique le xalif général le phénomène de l'univers, l'empereur, la maréchal, le bourreau des dëmm, le khalife de khalifes, le roi médecine traditionnelle du monde, the king of the all of the king di Alaaji Thierno Moule Sow ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal mu yàgg fi lool xam nga ni yàggam fi lool àdduna ñoo ci njëriñu euh, di ziar madame Sow la reine di ko jox wàccuwaayam di ziar Rahman ak Rahim prince Moule 1 ak prince 2 ñu dem ba sut seen ay waajur. Euh, am nañ mbégte euh, di ànd ak yow saa su ne sur la TMS TV ci émission bu mag bi nga xam ni benn la ci monde bi muy li ci jinne merci beaucoup Moustapha je vais me du côté de Matar Matar nga nuyu ak téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu sëriñ bi bu baax a baax di tàmbali nuyoo bi ci moom di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu national bi ak international bi di nuyu mule mule yëpp nag di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi doyen di nuyu euh, macha allah oustaz Babacar Dieye di nuyu tamit tubaar euh, tubaarkàlla sama xarit suma doom ndey nga xam ne moom lay àndal tout le temps ci terrain bi tubaar tubaarkàlla macha allah di kontaanaat bu baax a baax a baax di am mbégte aussi. di di di di di di toog fii ci kanamu sëriñ bi tubaarkàlla muy def li ci jinne ndax tubaarkàlla àdduna yëpp koy suivre foo tourné ñu naan la ana sëriñ bi gën nañ ko dégg tout le temps ñi ngi seetaan vidéo yi mais dafa am facette yoo xamante ne lu mel ne li ci jinne dafa nekk émission bu doy waar émission bi ñu ko namm dañu bëri internet yaa ngi koy laaj monde bi yëpp a ngi koy laaj ku nekk ngi koy laaj merci beaucoup oustaz Babacar Dieye nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi anbiyaihi wal mursalin wa imaami asfiyaihi wal murtaqin sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daaimayni mutalazimayni ila yawmi ddin aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu doyen Abdul Aziz ñu ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu mboolem ñoo xam ni ñooy seetaan télé bu mag bii di TMS TV tabaarakallahu ci émission bu mag bii di li ci jinne fa tabaarakallahu di am mbégte lool ak kontante di ci feggoo ak yéen rawatina di ci feggoo ak sunu PDG waaye sunu sëriñ sunu lépp fa tabaarakallaahu Cheikh Alxaaji Thierno Moule Sow ñu koy ziyaara bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm yàlla defal ko sutura yàlla guddal fanam te wéral ko ndax xam naa ni incha allahu taala bu guddee fan te wér rek lu baree baree bari loo xam ne jàmbat la ci askan week yu mel noonu lépp dina rek la ci kàttanu yàlla ndax tey euh, buñ koy tudd yow wala ak Moustapha ak euh, xaaji maxtaar mi tabaarakallaahu dégg nga dégg nga dàkkantal dàkkantal kinaaya yi nga xam ne def ngeen ko ci tabaarakallaahu muy le maréchal le brodeur de mun nangam nangam yooyu maanaam euh, dàkkantal dafa am solo ndax gaynde boo gisee mu bëri tur njàmbaar gaa tax hmm. boo gisee mu bëri tur euh, na mu toll a tax yowmal xiyaam boo gisee mu bëri tur na mu toll a tax ku doonul dara nag doo am dàkkantal hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ndokkeel nuyu xaaji Moustapha xaaji maxtaar ak ñi seetaan ñëpp. jërëjëf oustaz Babacar Dieye tey wax naa leen ko euh, émission li ci jinne la mais li ci jinne jàkkaarloo ak borom jinne yi la tey émission jàkkaarloo la sëriñ bi tey dañuy jàkkaarloo yow ci <laughs> ci émission bi te dañ ko fas yéene alors euh, suma première question Matar wax na ko léegi nee na euh, nit ñaa ngi téléphoné ne sëriñ bi dañ ko gëj gis gëjuñu ko gis parce que il est présent gëjuñu ko gis parce que ñëpp xam nañu il est en activité mais sëriñ bi si on remonte un peu l'histoire la dernière émission li ci jinne le 8 juillet le 2022 tey boo ko xoolee am na onze mois fukki weer ak benn fukki weer ak benn sëriñ bi te nga nekk activités yi taxawul fukki weer ak benn sëriñ bi gis nañ la yaa ngi doxal gis nañ la vraiment yaa ngi nekk macha allah en super forme sëriñ bi lu tax nga toog onze mois yoo xam ne nii vraiment tourné wuloo li ci jinne waaw jërëjëf doyen macha allah dégg nañ kàddu yi. c'est normal parfois euh, nga def dara toog bàyyi nit ñi maanaam xool li nga daan def mooy lan defe naa ne ndeysaan li ci jinne yee ñu yee nañu bari sax te day yeete ndax vraiment euh, da ngeen may laaj su ko defee ma génnee xam-xam bi toj ko vraiment toj uq bi génnee leeral nit ñi jinne mooy lan dëmm mooy lan macha allah defe naa ne euh, toog nañ onze mois kon xam nga ne euh, yàgg na waaye teewul nit ñi saa su ne dañ koy laajte waaye noonu la parfois nga def dara jékki-jékki def stand by xool li nga def mooy lan macha allah defe naa ne émission boobu noonu émission bu riis la bi nga xamante ne xam-xam lañ ciy waxtaanee. Mm. macha allah kon nag defe naa ne tey moom reprendre nañ ko bu soobee suñu borom. Euh, dinañu toggati loolu incha allahu nee naa leen chaque 15 jours dinañ leen ko may bu soobee suñu borom dinañ gën a yaatal gëna a wax ci jinne yi gën a wax ci rab yi dëmm yi ndax macha allah liñ ci yor. ay magasin la ay conteneur yàlla yi nga xamante ne mënul jeex maanaam banque la du jeex yi ñu mën a génnee saa su ne mun loole loole ñu laaj ci jinne ñu génnee ci te du jeex ndax ay banque lañ ci maanaam liñ ci yor dafa bari macha allah. <laughs> dëgg la sëriñ bi li ma sa xam-xam macha allah li muy rëy yëpp xamoo ñaata jinne nga jàpp te defe naa loolu moo mooy dëgg xam nga banque sax léeg mu dem ba xaw a fayit mais yow defe naa ne sax xam-xam du fayit ah jinne yi du ñu fayit donc yow dépensé nga banque Moustapha ma jox la pour une question. Euh, jërëjëf Abdel Aziz am mbégte lool di jàkkaarlook euh, le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow alors sama laaj sëriñ bi gis nañ Sénégal actuellement dafa nekk ci tension ah gis nañ fan yi dëkk bi yëngu woon na lool ba mu am presque lu mot vingt six morts ñaar fukki nit ak juróom benn ñàkk ci seen bakkan euh, ñu bëggoon xam nag Euh, li nga xam ni ñu bëree bari ñu ngi koy lam-lamee ne euh, ñàkkul ni jinne yi ñoo wàcc ci réew mi te am na ci ay jamono yaa ngi doon wax ni askan bi dañu dem ba dëkk fi jinne yi dëkk ñu buggoon la laaj mbir mi nan nga ko gisee sëriñ bi jërëjëf Moustapha euh, dañuy am naqar ak tiis vraiment di jaale ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatule ñuy génn àdduna ñoo ngi leen di jaale seen mbokk yi yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla xaare leen aljanna vraiment ñi nga xamante ne ñoo ci gaañu aussi ñoo ngi leen di massaw bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ci yàqule tamit ñoo ngi leen di massaw vraiment di ñaan jàmm ci réew mi ndax nag jàmm ci la lépp xaj macha allah Moustapha euh, di am kontaan ak mbégte lool ci question boobu nga ma laajte euh, saa yu problème amee jafe-jafe amee lii di dëmm ak jinne en général dañuy gën a xamb mbir mi day maanaam mbir mi dañ koy xamb su ñu ko fekkoon un pour cent dinañ ko yóbbu cent pour cent parce que ñoom ci la ñuy profité ci la ñuy occasionné wu macha allah ñoom it ñu am lu ñu bëgg loolu moo tax euh, en général bu problème amee rek euh, yooyu day gën a garaaw parce que boo xoolee macha allah euh, coow li yàggul waaye gis nga ñi ci dee dafa bari coow li yàggul waaye gis nga lu ci yàqu dafa bari coow li yàggul waaye gis nga ci diggante ñaari fan xawma ñetti fan nga gis na ne macha allah mënoon nañ ne Dakar munoon na nekk comme doom ndax euh, vraiment yàqu-yàqu dañu bari parce que en général shaatini euh, jinne yi ak dëmm yi dañuy bëgg saa su ne événement yooyu di am su ko defee ñoom dañ ciy laxasu dañ ci laxasu profité aussi vraiment euh, mën a am li ñu bëgg ci maanaam muy deret mu ñu ñu rey nit ñu profité ba ñu rey ci nit ñu mun a naan deretu nit ki profité ci macha allah ñu occasionné wu ci maanaam mun ci dund parce que ñoom ci jaamu yàlla yi la ñuy dundee ci ñii ñi la ñuy dundee moo tax en général bu coow amee euh, problème bu amee euh, macha allah kenn ku ne war na mun a moytu parce que doo xam mbir yi falee fal maanaam bu bu tàqee doo xam fu mu jëm parce que ñoom dañ ci laxasu te buñ ci laxasoo day day gën a garaaw parce que ñoom dañuy jax-jaxal xam nga jax-jaxal dañuy gën a xamb taal mi waaw dañuy gën a xambataal ba mi ngeen gis ne lu yéeme am na fi fan yi vraiment di massaw ñëpp nag vraiment di ñaanal jeunesse bi jàmm ndax jeunesse Sénégal euh, vraiment suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu vraiment di ñaan jàmm dellu ci Sénégal ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ndax macha allah ñi nga xamante ne ñi fi nekk ëllëg ñoom dañuy dem ñun ñoo fi nekk ak suñuy njaboot. kon nag nañu nañu ñaan yàlla dëkk bi am jàmm ndax bo am jàmm ci la lépp xaj daal macha allah di di massaw aussi ñi deele nga am sa sa doom ndeysaan nga yaakaar ko mu war la jëriñ ëllëg ñu jékki-jékki ñu boom ko mu dem loolu dafa metti trop macha allah loolu nag jinne yi dañ ciy profito dañ ciy profito ñoom occasion yi mel noon dañ ciy profito liggéey ci def ci lu garaaw macha allah moo tax saa su ne dama ko daan wax macha allah. jërëjëf sëriñ bi ci tontu boobu am nga question. war a laaj ndax yàgg naa di dégg muy wax ne jinne yi tubaarkàlla cheikh bu mag daan na wax ne jinne yaa ngi faboo penku jëm si soow defe naa ne bu ñu ñëwee ba soow nag mel na ne ruube ne nañ nguur gi ak euh, biir assemblée bi defe naa ne yàggul dara doon nga ko wax ñu jëm fii ville ci oto ma dégg la nga wax ne assemblée boobu sax la fa samp lu bari doole la te chaque jour histoire bi day gën di yokk te jamono yi dama doon gis chaque jour histoire bi day gën di yokk ba tey nag ñu tollu ci xeexoo kon mu mel ne loolu est-ce que laajul tamit jamono bi ñu toll nii ci côté biir dakaar bi noonu maanaam nga samp fa lu mel ne comme luuma xool Dakar ak li ko wër ndax tamit ah yow lañ ci yaakaar de amatuñ ci beneen soxla est-ce que loolu pare nga ko war a déet. waa jërëjëf Matar macha allah est-ce que luuma boobu ñoom arrangé na leen. parce que ñoom chez Atini dañuy bëgg saa su ne di di di di di di di di am lu ñu bëgg mais luuma boobu du leen arrangé boo xoolee macha allah luuma bi ñu bëggoon organiser gis nga nu mu demee euh, macha allah biir ensemble dañ fa fees dell ndax naa la wax lenn jinne fu ñaari nit ñetti nit dajaloo weer jinne yi ngi foofu jinne fu ne la nekk ñun ak ñoom ñoo dëkk xam nga bu njëkk dañ daan wax jinne yi dañuy nekk ci àll ba àll ba àll ba léegi nag ñun ñoo ngi ci ñun àll ba yëpp gor nañ ko fii yëpp boo xoolee àll la woon jinne yi ñoo ngi suñu biir ñoo ngi dund ak ñun di ànd ak ñun di ñu yàqal te duñ ci xam dara di jaxase ay nit da ngay gis ñaari xarit ñu ànd vraiment jinne yi jaxase seen diggante jëkkër ak jabar ànd ñu jaxase seen diggante nga gis patron ak ak ak kii patron ak ak ak ak kii am employé am ñu jaxase nga gis macha allah xarit ak xarit jinne dafa nekk suñu biir di jax jaxal léegi nag ñu bëri comprendre ñu loolu macha allah ñu bëri comprendre ñu loolu waaye ku mel ni man nga xamante ne suñu borom may na ma xam-xam ak baatin euh, yi mel noonu dama koy xam saa su ne ndax dañuy dañuy jëflante ak ñoom xam nañ ñoom seen kap lu ñu capable macha allah euh, xam nga ne luuma moom fu ñu ko defee moom dinañ jàpp ñu bari ñi nga xamante ne ñooy jax-jaxal dëkk bi macha allah waaye nag dañoo daw fas waaw dañoo daw fas macha allah. <laughs> dañoo daw fas waaye xam naa dinañ teeral oustaz defe naa am na laaj boo war a laaj wala contribution. waaw man de xanaa li ma ci li ma ci li ma ci euh, doole rek mooy wax dëgg yàlla ah sëriñ bi est-ce que itam comme lu baree bari ci dëkk bi bu ñu koy taxawal. lu mel ni tey autoroute à bi bu ñu koy xotti. Mhm. bu ñuy def leneen ak leneen ak leneen. Mhm. est-ce que laajul kon euh, ñu ñëw parce que yàlla moom dafa bind ñett yàlla dafa bind nit. Mhm. bind jinne bind malaaka. bind malaaka ci leer bind nit ci ban bind jinne ci safara. te itam kon bu nu gisee tàkk-tàkk yi booy fu nu jublu rek taal. station yi amatul essence wala ñu tere leen a jaay ñuy taal di taal di taal di taal boobu. est-ce que du jinne yi ñooy rax ci biir booy yi di taal comme ñoom ci safara lañ leen bind waaw jërëjëf Oustaz Babacar ci question bi am na solo comme ni nga ko waxee rek ñett la maanaam nit la ak jinne macha allah ak malayka comme ni nga ko waxee doomu aadama ci ban lañu ko bindee suuf ak ban jinne ci safara malayka ci leer eh, jinne yi wax naa la ne yu bëri yi ngeen di gis mu grave ñoom seen loxo ngi ci parce que bu ñu mënul def sax bu action amee ñoom mun nañu rax soppaleku nekk nit créer ay affaire parce que boo xoolee euh, dëkk bi tàngoon na lool booy yi sax euh, dawuñu woon bal nga gis ñuy dóor ay bal nga gis booy affaire affronté nga xam ne ne lii lu garaaw la nga xamante bu njëkk bu boo déggee kurut karaj rek da daw <laughs> mais bu ñu nee kurut karaj nga gis booy affronté day rax ndeysaan euh, da nga leen di yërëm sax nag vraiment nga xamante ne euh, ñàkkul am na ay jinne yi ci laxasu loolu moom euh, lu am la jinne yi saa yu musiba amee problème am ñoom dañ ci laxasu profitoo ci pour euh, taal dëkk bi profitoo ci pour jaxase loolu day faral di am macha allah moo tax dañuy ñaan jàmm dellu si suñu réew parce que ñoom dañuy ñoom ci la ñuy profitoo ñoom bu jàmm amee ñoom du ñu am lu ñu bëgg dañuy bëgg ay am jafe-jafe am ñoom ñu profitoo ñoom tamit occasionné wu tamit ñoom defar seen bopp defar seen i mbir moo tax dañuy bëgg tout le temps musiba di am jafe-jafe di am ñoom tamit li ñu bëgg ñu am ko macha allah. waaw ci biir ci biir loolu xam nga euh, comme ñi nga xam ne ñoo yilif Sénégal maanaam jiite Sénégal am na yoo xam ne bu xewee dañuy xam ni lii du mbirum nit yi kese xam nga war na noo jóg kon ñëw ci ku mel ni yow nga xam ne yaay xalif général di jindi yaay yilif jinne yi loo leen sant ñu def ko ku ci bañ nga nga duma ko mu def mu def la la nga bëgg waa léegi ñoom comme defuñu ko wala seen xel àggu ci est-ce que jaaduwul woon kon yow ku mel ni yow nga jóg jéem a def démarche boobu kon. non xam nga euh, fii Sénégal la te xam nga ñun africain yi gëmuñu suñu bopp waa dañuy gis suñu nit yàlla may ko ñu ñu gis loolu romb ko dem jéggi xooli keneen te fekk ne macha allah kii yàlla may na ko wala nga am sa nitu bopp wala nga am sa sëriñu bopp mun nga am sax sa sëriñu bopp fekk ne moom xamul dara ci mbir yi. loolu yëpp gis nañ ko ci dëkk bi waaye ku mel ni man duma def démarche fenn di dem ci naan ay démarche ak nangam nangam man ñàkkeewu ma fulla noonu ñàkkeewu ma fayda noonu ndax li ma yor xam naa ko xam naa suma xam-xam xam naa luy suma baatin duma dem ci kenn naan ko nii ak nii du ma ko def parce que loolu boo ko defee da ngay ñàkkal benn sa bopp fayda benn da ngay tuuti sa xam-xam waaw da ngay gis nañ nga xamante ne amuñu xam-xam sax ñooñu dañ leen di favori léegi yow kon yow li la yàlla may xam nga ko mooy lan xam nga li nga li nga téye mooy lan yow xam nga ko kon yow doo def dara lu da ngay toog ñaanal sa sa sa réew jàmm rek nga mën loolu nga mën comme citoyen yëpp ñaan jàmm rek nga mën waaye mënoo ne da ngay dem di dox di wax nangam di wax nangam nangam parce que loolu boo ko defee sax duñ la respecté duñ la jox sa cër da ngay toog ñoom su leen ko jaralee su ñu demee ba gis ne macha allah kii yàlla may na ko bu ñu déplacé yu ñëw nag nga daal di leen jàppale mais bu ñu ñëwul seet si la yow bul dem seet si leen man suma xam-xam du may doxee noonu parce que vraiment maa ngi sant suñu borom bu baax a baax euh, nammuma dara vraiment euh, daw ma ci ginnaaw kenn <clears throat> macha allah loolu la waaye nag da ngay toog ñaan ah réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm nga def sa ñaan yow tamit li nga mën comme citoyen waaye bu laajee yenn affaires yi aussi euh, buñ la ko joxul yow doo ko def waaye da nga ñaan comme ñëpp am nga droit ñaan comme ñëp waaw am nga droit ñaan comme ñëpp te xam nga kenn ku ne dafa am ay nitam parfois sax da ngay gis ñuy jël ay nit favoriser leen fekk ne yow xam nga ne ñooñu sax yow sa weewu sa weewu baaraam <laughs> sax yemu leen macha allah waaye noonu la euh, sénégalais moo mel noonu africain moo mel noonu euh, macha allah gis nga fan yi maa ngi gis ñoo ngi invité benn waaye bu jógee bu jógee France nee na day def roqan day day day def captage jinne te ñu gis ku mel ni Thierno mule Sow nga xamante ne organiser na fi luuma jinne def na ko fi quatre fois daanaka genn wàll jinna Ndakaaru yëpp jàpp naa ko ñu dem gis kooku noonu mu jege France ñëw fii ñu ne dañu koy laaj ci affaire yu jinne affaire u nangam xam nga loolu mooy fumiste ak seytaane mooy ñàkk gëm sa bopp te kooku ci boppam jéem na ma tudd sama tur pour am pour ma pour ma tontu ko faalewu ma ko parce que moom am na benn jinne bu mu tuubaloon sax jinne bi maa ko mujj jàpp mooy Mouhamadul Moustapha waaw am na benn jinne bu mu tuubal waaye munul génnee jinne bi kon mooy complexe bi man nag boo complexé ba gëmoo sa bopp man Thierno Moule Sow ma gëm suma bopp gëm suma xam-xam gëm suma baatin ndax tey boo xoolee euh, suma clinique bi caaxaan taxawul ko macha allah ndax damaa gëm suma bopp gëm suma xam-xam xam na ne li ma yor du caaxaan xam na ne li ma yor njëriñ la te day jëriñe mooy baatin bi ma yàlla jox macha allah yilif jinne yi di jàppale askan bi ba ku fi ñëw sa aajo faju tey boo gisee fi ma egg tey loolu moom ma ko eggal du dërëmu état du dërëmu kenn tey suma dërëm moo ma taba moo def li may def li yëpp kon man waruma daw ci ginnaaw kenn di wala di def démarche yi kenn ñoom bu ñu soxlaawee ñoom ñoo war a déplacé wu ñëw parce que ñoo ngi jóg di di dem di seeti ñi nga xamante ne man ñooñu yemuñu sama weewu tànk kon man man euh, bu ma jógee man di leen seeti man kon man damay damay ñàkk suma suma damay ñàkk suma dignité ñàkk ñàkkal fayda suma baatin loolu man duma ko def macha allah dëgg la euh, avant may jox Moustapha Euh, sëriñ bi wax naa ko macha allah jinne yi nga jàpp bari nañ mais def ci am nag ay ponkal waaw ku ci mel ni roi haha boobu nga xam ne da nga jëflante moom fii ci ci plage bi euh, tiye ko tuubal ko dugal ko ci diin l'islam mais sëriñ bi ponkal yooyu nga jàpp euh, ndax mun nga ñu jox nouvelle seen i doom wala seen sët est-ce que ñoom ñu ngi évoluer est-ce que daal ñu ngi ñu ngi sonal nit ñi wala daal bëggoon nañ daal xam ay nouvelle ñoom seen maanaam seen i doom ak seen sët seen njaboot daal xam. yaa ngi may laajte le roi xaaxa kooku moom defe naa ne prince daf ko nangu ci man waaw macha allah lu mu yor ma lu mu gis ma téere da koy jël ne ko da koy yóbbul xaaxa ma ne ko nag yow xaaxa daf la nara a loo lépp lu ma yor rek da nga koy bëgg a jox xaaxa macha allah comme li nga wax rek euh, le roi xaaxa xam ngeen ne maag moom combat bu metti la ñu def fii ci géej gi defe naa ne loolu ñëpp seetaan nañ ko loolu rek nga xamante ne lu rëy loolu ma def rek. defe naa ne loolu du fay ba ilaa yow mi diini. Hmm. loolu bu ko bu ko beneen tubaab defoon wala beneen naar. bu ko defee da ngay gis dañu koy mbamti mbamte macha allah kii ko mais seen mbokk sénégalais moo ko def africain mais du ñu mën a nangu du ñu mën a accepter loolu. macha allah nga xamante ne ku daaneel bateau le Joola. Hmm, bateau de Joola nga xamante ne ñaata moor. presque ay deux mille mille morts. lu musul am ci monde bi deux mille morts. Titanic moom wa defe naa adduna bi la adduna bi presque genn wàlla adduna bi yëpp la rey nga xamante ne kii daaneel Titanic daaneel de bateau de Joola nga xamante ne kooku mooy le xaaxaa nee na buy daaneel bateau bi danaan xaaxaa xaaxaa rek bateau daanu nga xamante ne mu nekk requin nekk jine bu doy waar bi nga xamante ne kenn mënulu ko dara ci adduna bi nga xamante ne nee na ñi ay foo ngeen dafa naa ne gis ngeen euh, loolu keroog ba mu amee mu ne daf may rendee ginnaaw nga gis loolu macha allah nga gis li ma jëflante ak xaaxaa ba ñëpp gis ne macha allah jinne bi yaakaaroon na ne man mënuluma ko dara parce que euh, fi mu jaar la am na cent mille combats zéro défaite mu ne ma man mi ay ree laa koy def mu ne ma man bu soobee yàlla dana ma dana ma rendi mhm. ngeen gis loolu ma jëflante ak jëflante ak moom jëflante ak moom jaayante ak moom baatin ak mhm. xam-xam mhm. ba tëral ko ba daan ko ba duma ko ba mu nangu mu mhm. yëkkati suma loxo daw ak man vraiment ne ma yow la macha allah ngeen xam ne ne kon yàlla mooy maye léegi nag loolu noonu <laughs> bu ko sénégalais yi gisee euh, vraiment ñu ne cell toog mooy dama naan ay naa feq lañu bu ko keneen defoon beneen naar wala beneen walaakaana dañuy daw ci kooku di raam ci kooku léegi nag man ku def loolu téye xaaxaa tër ko mais man du ma ñàkk fayda di ñàkkal suma bopp fayda mais am na ful ak fayda bi nga xamante ne man li ma yor xam naa ko mhm. te xam naa ñi ma yor ak ñi ma daaneel mooy ñan mhm. ponkal yooyu noonu mhm. tër leen kon man vraiment macha allahu man war naa mën a xam maay kan moo tax duma ma lamb-lambee fenn du ma dem fenn maa ngi toog suma kër di liggéey ñi ñaa ngi may uy si partout dans le monde vraiment ñi ñaa ngi gis seen bopp bu baax ci liggéey bi euh, maa ngi sant suñu borom bu baax xam ngeen ne ay millions laay fayeeku loolu defe naa ne wër na adduna bi macha allah d'accord euh, la régie ñu may ñu rek ñu dem ñu dem xoolaat parce que sëriñ bi ouvre na de benn parenthèse bu am solo mooy mooy mooy bataille boobu mu livrer ak euh, ce redoutable jin ñu koy xaaxaa mu daal di koy gagné ñu dem xool un extrait en tout cas de ce grand combat que mu lay Sow a gagné mais aussi cette défaite pour la première fois nga xam ne ni moom la roi xaaxaam ñu xool image yi te daal di ñëwaat sur le plateau. Damas et Women, aujourd'hui, c'est qui le qui C'est qui le Khalif général Qui est le Qui est le C'est qui I am the king. The king of the king. The king of the king. Quel est le I am the king. Wow, fífẹ́ mi ò fẹ́. Àgbẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé mo lè ṣe òṣòro. Mo lè ṣe of the kingdom. C'est dit? Pour marrer, pour marrer, pour marrer, grillade. jaaraama voilà merci donc euh, retour sur le plateau de la TMS TV alors ngeen suivre léegi un extrait euh, de cette rencontre historique de ce combat historique que le marabout a livré avec le roi Aha la suite vous le savez mooy une victoire éclatante bu mu am sur le roi Aha et mais signé aussi la première défaite de ce redoutable dîner sëriñ bi euh, gis nañ léegi image defe naa ne xeex nga xeex yu métti waaye xeex bi bokk na ci yéen gën a bi nga paree lan nga yëg avant may def jox Moustapha loo yëg. jërëjëf doyen di am kontante ak mbégte gis ngeen macha allah fi ma jaar xaaxa mu nekk jinne bu doy waar nga xamante ne cent mille combats zéro défaite defe naa ne loolu wax dëgg yàlla ah, ci monde bi defe naa ne gisaguma ko am cent mille combats zéro défaite nga xamante ne loolu lu rëy la li nga xamante ne loolu macha allah maa ko def fii ci ndakaaru nga xam ne loolu rëy la sant suñu borom la ba ma ba ma paree dama am kontaan ak mbégte vraiment santaat yàlla euh, mu rappelé ma ndeysaan Batoto Joola euh, ba ba mu suruxee ñun ñëpp jooyoon nañ ma ne ndeysaan ndekete kii moo daaneloon Batoto Joola ndekete yàlla man la doon xaar ba ma egg fii ba ma màgg ba ma toll ni ma jëflante ak moom daal di koy duma daal di koy daaneel ndeysaan euh, mu nekk euh, lu fort ci man mu nekk lu rëy ci man li nga xamante ne vraiment euh, lu lu yéeme la ci adduna bi nga xamante ne ñooñu kenn mënalu leen dara ndax nee na am na cent mille combats zéro nee na sëriñ si yëpp ay foo lañu waaye gis nga ni ma jëflanteeg moom nga xamante ne yàlla mooy maye léegi nag ku mel ni kooku war nga xam sa bopp war nga xam yow yaay kan war nga macha allah xam sa valeur moo tax dama xam suma valeur xam man maay kan parce que ñu mel ni ñooñu nga xamante ne vraiment jooyloo nañ monde entier vraiment kenn mënul ci ñoom dara man mi nga xamante ne macha allah baayu prince un baayu prince deux ñëw jàkkaarloog moom vraiment mu yaakaar ne ne ma vraiment kii tey dama koy warax parce que boo xoolee euh, réyaayam ak ngàndaayam ëpp na ni immobile bi man maa ngi mel ni fel ci kanamam tuuti mu ne kii tey dama koy warax waaye suñu borom ak kattanam ak xam-xamam la xalif général des jinne le king of the king le roi des jinne baayu sëriñ si nga xamante ne macha allah sama yaram tàng ma daw jëflante ak moom ci baatin jëflante ak moom ci xam-xam daal di koy wàccee ci kattanu suñu borom macha allah suñu borom nangul ma ànd man ak suma xarit ndeysaan di yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk lu rëy ci man ba dem na ba léegi suma doom sax suma doom macha allah moom mooy jëflante ak xaaxaa premier prince premier prince kon loolu loolu mbégte la vraiment barke alxuraan nga xamante ne loolu sant suñu borom la voilà donc dégg nga par premier prince Moustapha ak une question. alors sëriñ bi dañu gis fan yi am na benn rapport bu ñu génnee ñu gis que ni Sénégal at mu ne lu mot euh, juróomi téeméeri junni divorce day am cinq mille cas de divorce ci tribunaux yi lañ ko génnee euh, ma buggoon nga wax ñu sa njàngat lan moo waral loolu est-ce que nekkul ni jinne ñooy dugg léegi ci kër yi di tas sëy jërëjëf Moustapha loolu nga wax noonu jinne yi am nañ ci responsabilité waaye lépp du doon jinne waaw parce que tamit lu ne ñu ne jinne jinne aussi loolu tamit d'accorduma jinne yi ci benn côté bi dinañ def loolu ndax nag mën nga mën nga takk nit fekk jinne takk fekk jinne moo ko njëkk a ànd ak ànd ak fekk jinne bi moo la ko njëkk takk mhm. euh, vraiment nekk ak moom nga ñëw bëgg ko takk mhm. jinne bi bañ nga dem def ay xarfa fuufa yooyu ba takk ko jinne bi nekk di ruube di fexe ba yàq diggante bi loolu nangu nañ loolu euh, macha allah waaye am na benn côté bi tamit euh, jinne tamit du def loolu maanaam benn côté bi aussi euh, intérêt moo ci lal wala nga bëgganteeg nit fekk bëggu la nga dem njabar ko ba takk ko bu demee ba loolu toj ak yooyu wala wala ñu gis la nga yor rek ñu dugg ci yow pour ratt la macha allah yooyu yëpp a ngi ci daal waaye du jinne kese mais nag pour cent quatre-vingt-dix pour cent yi jinne yi dinañ doxal loolu waaye li si li si des moom jinne yi duñu ko def waaw te loolu dafa bari boo xoolee da ngay ba dañuy takk benn un mois wala une semaine deux semaines nga yëkkati may ay millions. Mm-hmm. après divorce am loolu bari na ci dëkk bi. Mm-hmm. jinne yi dinañ def loolu waaye nag bu ñu jël lépp nag yéen ko jinne yi. Mm-hmm. jinne moom dina def loolu ndax nag macha allah am na yi nga xamante ne bu jinne nekkeek nit. moom macha allah ku ñëw mu dàq ku ñëw mu dàq boo insister ba takk. jinne bi du la may jàmm soit mun nga nekk mu fexe ba nit ki du am doom mhm. soit mun ngeen nekk mu dem ba tële loolu yow ku góor ki wala di xëppaloo ndaw si deret mhm. parfois nga gis jigéen bi nga xamante ne euh, saa borom këram ñëwee day gis deret maanaam règle bu douleur bu dul arrêté mhm. bu jëkkëram demee règle arrêté loolu yëpp gis nañ ko jinne da koy def macha allah ku jinne bari na lu muy def loolu waaye lépp lépp tamit du jinne parfois tamit jikko yi jikko yi da ngay gis parfois ñenn ñi xale yi jigéen ñi ñenn ñi intérêt moo leen di dugal góor du yor dara euh, yow buggoo góor gu ñàkk góor gi nag xam ne ne yorul mu dem loué oto dem fen def nii def naa fexe ba takk la ba ba am la su ko defee nga xam ne ne kii lu muy wax yëpp ay fen la nga nga fexe génn ci sëy bi yooyu yëpp gis nañ ko maanaam lu mën a lëmbee di force yooyu dafa bari Moustapha intérêt moo ngi ci eh, lu si bëri ay intérêt parce que nit ñi léegi ñu si bëri intérêt la ñuy sëyee bëgg nañ macha allah appartement bu baax bëgg nañ oto bëgg nañ nangam nangam bu nekkee ku góor ki amul loolu doole yemul waaye góor gi amul loolu mu xam ne ne bu fenul deful loolu du am jabar mu dem loué otoom tey mu indi 4x4 suba mu abu oto indi X6 wala mu ñëw abbu ma sama Range Rover bi mu yóbbu wala nangam nangam yooyu yëpp day am léegi bu demee nax labat ba gis nañ ko fan yee ci internet bi sax macha allah ay ah, genre yu mel noonu eh, yooyu yooyu bu nit ko xamee sëy bi day tas waaw maanaam li ci mën a làmb dafa bari jinne tamit day ruube jinne tamit day ruube comme ni ma la ko waxee am na eh, soxna yi nga xam ne ànd ak coro rab maanaam faru rab bu ñu ànd ak faru rab faru rab bi day fiire du bëgg nga am jëkkër ku leen takk ku leen takk parfois sax boo leen takkee nga dee wala nga takk leen def accident du yoo ay yooni yoon am na ñi nga xamante ne ñi dimbali naa leen ñaanal naa leen ba tey am nañ sëy góor gu leen mës takk faatu. Hmm. Ah, waaw bari na ah man kat. gis nañ aussi kii ñëw di ma kii ñëw bëri waaw musuñu am doom pendant ay ati at mais bu ñëwee ci yow yow rek jëflanteeg yow ñu am doom aussi. waaw loolu kay defe naa ne yéen dem ngeen ci ba sonn. Hmm. waaw dem nañ dem nañ ji jiloon somoon dem nañ jembereem jembereem dem fu ne dem ngeen géejawaay ak fu ne mais sëriñ bi loolu lan la loolu xam boobu. lan loolu loolu baatin la. Hmm. baatin xam-xam la bu leer bi nga xamante ne suñu borom moo ma ko roof macha allah xam-xam la ndax man samay mbir dafa leer dama bëri ay témoignages ñi ma faj ñi ma ñaanal ñu am doom ñi ma jàppale ñu tukki loolu lu leer la man samay mbir dafa leer tooguma rek di ratatati di wax man damay wane preuve mhm. te yéen seen bopp yéen ñii mhm. yëkkati naa leen mhm. du benn yoon di ñaari yoon ngeen dem Fuuta dem kasamaas dem fune ngir ay nit yi ma faj kon xam ngeen ne sëriñ bi li ko yàlla may dafa leer weddi gis boo bokk weddi léegi nag ku mel ni kooku da ngay am sa fulla am sa fayda waaw gëm sa bopp man dama gëm suma xam-xam gëm suma bopp bugguma kenn ku may may banaaloon wala di ma waxal nangam nangam maanaam fu ma egsi tey suma baatin moo ma fi yóbbu ak suma xam-xam ak gëm li may def ak li may def mu nekk dëkk tey moo waral ma egsi fii ma egsi ni ko Matar di waxee ba may jóg ñu du dem ma ah, kii mooy alaaji Cerno mu lay sow borom duwaa jaabi bi ki nga xam ne tubaar tubaarkàlla jàmm gën la déparé ñu naan du dem tubaar tubaarkàlla mu dugg Touba ah tubaarkàlla ñu naan du dem mu dem Daaru Xudóos ñu naan du dem mu dem 28 ñu naan du dem tubaarkàlla mu dugg Mali ñu naan du dem mu dugg Afrique de central ñu naan du dem tubaarkàlla mu dellu si tubaar tubaarkàlla sant Daaru Laay tubaarkàlla ñu naan du dem mu tàmbali luuma jinne tubaarkàlla jàpp jinne yi nekkoon parcelle ak li ko wër tubaarkàlla ba laayeen tubaarkàlla ñu naan du dem mu ñëw samp kàmbareen dajeeg ki nga xam ne nag mooy Serif seynu Laay surtout Seydina Limaamul Mahdi boobu tubaar tubaarkàlla nga xam ne maama ma woote woon fii ci géej gi tubaarkàlla ne woo naa nit ak jinne tubaarkàlla yaa masaral jinni wal insi la wax tubaarkàlla nga ñëw Cambérène dëbb ko bam nooy nepp ñu naan du dem tubaarkàlla national bi di jébbalu international bi di tubaar tubaarkàlla ñu naan du dem tubaar tubaarkàlla nga taxawal tubaarkàlla immeuble buy jar deux cent quarante quatre millions ñu naan du dem tubaar tubaarkàlla nga dugg Dubaï ànd ak madame Sawla ren tubaarkàlla ànd ak euh, rahman ndeysaan ànd ak ki nga xamante ne tubaarkàlla mooy soxna ummi sa gore bu tedd boobu tubaarkàlla dem dëbb Dubaay ba mu nooy wàcce fi conteneur boo xam ne tubaar keroog ba nga ko wàccee ci penc mi àdduna ñëpp a ko yéem tubaarkàlla ñuy wàcce bagage yi suba ba ngoon tubaarkàlla ci laa gis alboraax mii ñu naan Range Rover Verar tubaarkàlla alboraax mu lee laa ko tudde a xam ne tubaarkàlla oto bu baax la boo xam ne tubaarkàlla nouveau modèle la tubaarkàlla boo ci duggee da ngay mel ne yaa ngi ci avion tubaarkàlla naaw doo nga ko dese sow def nga lépp tubaarkàlla ñu ne déeta waay tubaar kàlla say témoin wër na àdduna defe naa ne am nga ci ay turandoo faj moom fayoo kenn pour mu waxal la fayoo kenn pour mu wane say preuve yaa remontré say preuve wane li nga xam ne tubaar kàlla mooy jinne ndax jinne dañ ko daan dégg ñi ko doon faj ñëpp dégg naa magum jëpp mu weex tàll ak bi jaaw nee na ñi ko doon faj ñëpp dem nañ miir ba ndax dañ koo mënul woon waaye ku daaneel roi haha daaneel ki nga xam ne mooy maam lu lumburu yaata daaneel Jean Moulé tubaar kàlla nga xam ne ñooñu ay ndaanaani ndaanaan lañ dañoo dégg sa riir rek ci kaw asamaan wàcc ci suuf lu naqari dégg la waaye akay dëgg waaye defe naa ne damay bàyyi rek ngeen wéyal ndax naan wu yokk mar comme ni ko oustaz Babacar di waxee tubaarkàlla dama damay damay bañ damay gàttal rek ndax boo booy wax ci moom parce que jàmbaar waxtaane ko day neex parce que jàmbaar day bëgg jàmbaar waaw te man damaa ragal defet te sama waa ji combat bu mu mës a am ma ne na ko tubaarkàll adduna am na ñoo xam ne dañuy làqatu di la seetaan barki alxuraan ay kilifa dañuy làqatu di ko seetaan mm-hmm. barke Mouhamed Sénégal nag dañoo mën a suul jëf ak fakk jëf xam nga luy suul jëf mooy ki nga xam ne mën na loo mënul xam loo xamul nga taxaw fa la ah waa ji de day day dóor rek waaye defe naa ne vidéo yi ku ko seetaan mm-hmm. ndaw si fi ñëw bërki démb indi fi rakkam mm-hmm. dafa jooy ba man defe naa ne sax dana génne deret dafa jooy ba sonn parce que nee na musumaa gis lu mel nii dama ko doon seetaan rek di ko dégg chaque jour nag nga wone ay preuve chaque jour nga wone lu yéeme ci faj jinne dafa nekk lu doy waar loo xamante ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko bind sàkk ko may ko kattan may ko doole mu am sañ-sañ am mën-mën waaye yàlla nag li mu bind lépp nit a ko ci gën a ndax nag bul fàtte ne sa waa ji sayyiduna muhammad tubaara tubaarakàlla macha allah ci ci nit ñi lañ jóge tubaarakàlla kon nit lu mu bari doole bari doole jinne lu mu bari bari doole yàlla sàkk na nit bu ko mënal dara ndax yonente yàlla tubaar tubaarakàlla def loonu jinne lu ne waaye nag yeggul woon nag ci jàpp jinne nag tubaarakàlla di ko génn ci nit waaye yow lii la sunu borom defal sunu borom moo la ko defal chaque chaque année rek ak la cay xew temps bii ñu toll nag sa temps la jamono ji sa jamono la bu la neexee lëmbeel bàyyi rahmaan ak rahim séeri madame sawla ren tubaar kàll jéeg bi nga xam ne mooy togg ci bu ci ci mën a yàq ci booli tubaar kàll ñu ngi koy ñaanal baax mu yàgg fi yàlla na yan bi woyof tooy defe naa ne adduna ñoo lay déglu defe naa ne adduna ñoo lay topp parce que am na ñoo xam ne jébbaloo ñu gisaguñ la waaye ñu ngi ci yoon te incha allah rabbu ku xeluwul ñëw da ñëw oustaz Babacar Dieye sama xarit bi chaque jour mu firi ko waaye di leen cax waaye gars yi ko dégg waaye xaayaan ki dégg séeréer sama waaji sama waaji ndama ngi ci gàccee ngi ci waaye liw bi liw bi ngelaw li alaaj cënn mu lay soo ko Marcel bàyyi na la xel sama waaji yaay champion yaay naanaan ligue nationale bi jël nga ko jël première division deuxième division su may wax du ma du ma doyal maa la wax loolu <laughs> loolu la yàlla dogal yàlla mooy def nit lu ko neex ndax mooy xaasa wa jàlla lu ko neex su ko soob rek da koy amal waaw fa innama amruhu issa araada say an an yaqulu lahu ceerno mu lay sow kun fa yakun ba mu koy wax du tey bërki démb damaa tëdd démb dama tëdd ba deux heures ma tey ma capturé benn vidéo dugal naa ko sax TikTok ma dégg muy muy wax mu ne defloo naa jinne lu ne mu naan ko wàccul jinne buy wàccu loolu loolu loolu musta am Sénégal nag bari na sëriñ soo xam ne dañuy dem fay ay caméraman fay ay journaliste bala ñu laa defal émission nga génne cinq cent mille wala deux cent mille xam la ma la li mu wax nii dafa am importance gis nga sëriñ dafa am looy incarné loo xam ne bu la yàlla mayul munoo ko incarné bu la yàlla mayee nag lu wóor loo xam ne da nga cee toog neexaloo kenn sëriñ bi neexalul kenn ay millions laay fajee la wax kon bu doon day fay ay nit ñuy daanu wala muy fay ay nit tey jii ñu fiy ñëw wala muy neexal ay nit ñu koy waxal du neex a waxtaane waaw sëriñ bi ragal du ko bëgg ragal du ko bëgg da ngay am fit xam li muy def ni dëgg la nga mën koo waxtaane moo tax mbiram dafa leer nañ wowul kenn protocolul kenn du journaliste demul benn télé lépp lu mu def moo ko def ak jingóom looloo tax mu neex a waxtaane jaloore boroom a koy nettali jërëjëf alaaj Thierno lay Sow yàlla na si jàmm yàgg nag teral na buur teral baa doola waaw moo xam ku xam gërëm ak ku xam sant waaye teral na buur teral baa doola te jëfi tayam jëfi tayam chaque jour day gàcceel bu démbam saa yu génnee rek nga ne Alaaji Thierno Moule Sow génn ci beneen facette ci weeru koor ci jumaa yi ci jàkka yi ci tabaski yi ci këru diine yi sa soxla feebar fajul ordonnance su ma koy wax du ma jeexal Moustapha damay bañ a jël émission bi. macha allah kooku mooy euh, Matar le le le le tiktoker du xalif général Alaaji Thierno Moule Sow le grand communicant kon Abdou Aziz balaa ma laa delloo kàddu gi rek am naa laaj bu ma bëgg a laaj oustaz waaye Matar. nee naa la sànq immeuble bi ëpp na 244 millions moom lañ ko jëndee waaye li ci sëriñ bi frais immeuble bi war na egg ay 500 et quelques millions. jàppal chiffre milliard. waaw kon Oustaz euh, Oustaz euh, balaa ñoo euh, balaa maa delloo Abdou Aziz ma bëggoon nga wax ñu tuuti rek ci l'islam jinne ak yonentu yàlla Souleymane ak l'exemple de du xalif général di Thierno Moule Sow. waaw moom day euh, jinne moom comme ni ni ñu ko waxee rek euh, te sëriñ bi itam yàgg koo waxee noonu xam nga lu nekk nag daanaka euh, dañoo wax ne laysatil xabaru kala ayaan mm-hmm. ki nga xam ne daa dégg rek ko ak ki gis bokkut ak ki dund man damaa dégg rek mm-hmm. man mosumaa gis jinne xaw ma nu jinne mel mm-hmm. <laughs> te alaaj Ceerno Moule Sow mii tabaarakallaahu gis na jinne ba tàyyi jàkkaarloog jinne ba tàyyi dafa ak moom bala ma bala may tontu ci li nga wax sax xam nga am na loo xam ne tey Euh, jamono dafa dafa dafa toll am na loo xam ne tey jamono dafa toll xam nga tey bu bu fekkoon ni euh, teel na noo nangul ala Thierno Moule Sow mii may ki yàlla may bu fekkoon teel na noo jàpp may ki ko yàlla may muy wàllu nguur geek ñëpp àndandoo xam ni bu dee wàllu jiineeg wàllu shayaati nag yu mel noonu yëpp li ki ci yàlla may mooy alxaaj Thierno Moule Sow moo leen mënal dara mais teel a nangu googu bu amoon ba tala joolaa du suux kenn du jooy sa doom ci batalo Joola wala ngay jooy sa yaay wala ngay jooy sa baay wala ngay jooy sa kenn. ko ci kaw waaye nag eh, Sénégal moom dañoo tàmm dañuy bàyyi ba jaan jënam ñu topp ca watit wa di dóor di dóor di door di dóor di dóor. loolu lay dëgg yàlla. Eh, tey itam amul woon benn obligation nag pour jàpp le roi xaaxaa. déedéet amul benn obligation pour jàpp ko de. Ah, mais xam na ni bu ko bàyyee mu continuer di def ay dégâts. Mm-hmm. mën naa def lu raw tuur batalu Joola mën naa def leneen ak leneen ak leneen ak leneen ndax lu daaneel Titanic daaneel batalu Joola seen seen bato bu bees bi xaw ma nu mu tudd hmm. bu bu jàppul noonu la roi xaaxaa man na koo mën ne defit yeneen dégâts yoo xam ni kenn xamul foo koy waxee kon amuloon benn obligation def ko kon da koo def ci volonté am jàpp la roi xaaxaa moom tey da ko def ci volonté da koo def ci bëgg gi mu bëgg réewam ndax bu ko neexoon mu ni le xaaxaa ngi nii mën naa koo jàpp waaye bala ma koo jàpp réew mi président de la république danañ ma jox temps sinon ma bàyyi ko mu defaat yeneen dégâts rek parce que dégâts yooyu bu ko le roi xaaxaa di def du agsi ci moom di ko def ah parce xam na fi parce que parce que dina xam fi mu koy yem du ko ñime mukk ba koy songu loolu nag dafa jar bàyyi xel euh, yow euh, Moustapha bu ko defee itam xam nga yonent yàlla Suleymaan tamit wax dëgg yàlla euh, yàlla dafa dogal nekkoon na ak ay jinne yu gëm mais nekkoon na ak ay shayatin mm-hmm. yonent yàlla Suleymaan mm-hmm. am na jinne yoo xam ni gëmuñu woon mm-hmm. Suleymaan da leen tuub la ñu lànk la ñu def lànk ni ko ñun du ñu tuub ñoo bañ ah, mën nañu laa liggéeyal nag sama waa ji de da forcer moom nga bañ mu duma la wallaay mën nañ laa liggéeyal nag Suleymaan ibnu Daawuda laa wax jinne yi shayatin yi ni ko man nañu laa liggéeyal parce que bo xoolee ci alquran yàlla dafa wax ni wa kaana rijalun minal jinni lakal mujizatu najazat kullal wara Matar Matar yaa Seydi yaa Rasulallah na jasat kullal wara Matar sama buur la fu mu makku doom la ma war a wutal makku doom xam ne balaa émission commencé ti damay soqi ñetti bal déggoo ma de makku doom dama koy ràngoo fii waaw dañ koo war di woyal wallaay wallaay ndax daa def loo xam ne kenn def ko dama ne la yonent yàlla Souleymane foofu laa bëggoon a dugg si maanaam jinne yi da leen a tubloo ñu lànk ñu bañ kooku deseetul sañ-sañ suñu borom la dese waaye kii am sañ bu la tubloo nga bañ duma waaw Matar la ci groupe boole laa am ni Moustapha ay ca baal ma yeggale ma sama yaram a tàng rek waaw waaw <laughs> doxalal xam nga tey boo demee ci sóoratu jinni xam nga jinne garaaw gu ma garaaw moo tax yàlla wutal ko saar boo demee ci sóoratul jinni sóoratul jinni xul uxiya ilayya annahu nasama nafarun min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa bi walam nushrik bi rabbina ahadan boo demee ba ci biir mm-hmm. yàllaa ngay wax ne wa kaana rijalu min al insi ya'uzuna bi rijali min al jinni fa nee na dem na ba man yàlla opéré naa xam naa ni góor yàlla yi ne tuddee góoru yàlla mm-hmm. dañoo ragal kuy jinne bay ñaan naan yàlla ñun daal ñi ngi ñuy wut si di ñu waxloo ci jinne yi waaye ñi nara ñëw ci ñun di ñu jàmbat si jinne yi te mënaluñ leen dara yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla na nga leen téye bu nu agsi ci ñun ndax mënaluñ jinne yi dara jinne lu doy waar la jinne lu garaaw na yow fa nga toll gis nga yowmal xiyaam ci boppam yowmal xiyaam ci boppam yàlla nee na am na ñoo xam ne man yàlla du ma leen karkaral de xam nga damay def dama leen di wërale bu nu wëralee ma jël ay jinne ñu wër leen ndax ragal nan ragal ragal nan jinne ragal koo xam ni man yàlla wóor na ma ni bu jinne nekkee seen ginaaw doon xalaat ak geesu bay évadé yaa ngi dégg yonent yàlla Souleymane amoon na ay jinne yoo xam ne ay shayatin lañu exemple bi ma la ciy jox mooy ñi nga xam ni ñoo ko doon liggéeyal pale bi ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal pale bi bi muy bi muy bi muy faatu moom Souleymane xam nga dafa fekk muy liggéey lu benn benn benn benn masjid benn genre jàkka bu ta bu ak pale moom la Souleymane doon liggéeylu yontu yàlla Souleymane bi muy faatu dafa fekk muy liggéeylu euh, benn pale benn pale boo xam ni dafa dafa dafa taqaloo ak benn jàkka waaye bi mu koy liggéeylu jinne yi nga xam ni ñooy shayatin yi ñoom gëmuñu woon gëmuñu woon parce que Souleymane gëm gëmloo na leen mais dañu dañu lànk dañu lànk mais dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen a may kartanu bu ñu tuubloo jinne jinne ja bañ loolu sax alaa mu la soxla ko yàlla may carton bu tuub loo jinne mhm. jinne ja bañ day jëflanteeg moom di jëflanteeg moom di jëflanteeg moom ba jinne ji ko tey na ba jinne ji ni ko d'accord naa mhm. wax ma ñaari baatu seede yi ma tuub ndax damaa sonn dëgg la yonent yàlla Suleymaan nag tool na foo xam ni mhm. am na sayaatin yoo xam tuubloo na leen mais dañu bañ bañ donte am na ñoo xam ni jinne yoo xam d'accord nañu tuub mais bañ gi ñu bañ itam yàlla moo joxoon Souleymane pouvoir bu santee bu santee jinne liggéey mu liggéeyal ko ko yàlla yàlla yàlla yàlla moo ko joxoon Souleymane mm. <clears throat> gis nga euh, bi mu gis nga xam nga bi mu demee ba perte pouvoir bi bi mu demee ba perte pouvoir bi xam nga jinne yëpp dañ koo wan ginnaaw kenn faaleetul Souleymane ku mu woo doo ko faale mm. ku mu yónni doo dem te fi mu te li tax mu perte pouvoir bi mooy mooy mooy mooy jaaroom bi nga xam ne moom la doon takk saa yu daan sangu ji dafa am benn homme de confiance am bu mu koy jox dafa am homme de confiance bu muy jox jaaro bi homme de confiance boobu muy jox jaaro bi nag mu téel ko jaaro bi mu dem sangu ji ñëw mm. euh, seytaane moo bàyyi ba Souleymane dugg dem di sangu mm. tekki jaaro bi jox ko homme de confiance bi seyta euh, seytaane soppaliku Souleymane ci saasi daal di ñëw daal di ñëw ne ko sangu naa pare indi jaaro bi mu jox ko seytaane daal di jël jaaro bi takk dem yoonam. dégg nga loolu. daal di dem toog ca ca chaise ba boobu Souleymane génnagul mu dem toog ca chaise ba tàmbali nag naan jàpp leen ke rayal leen ma ko indil leen ma kee defal leen ma kii defal leen ma di santaane lu contraire ak li Souleymane daan santaane ci lu baax. bi Souleymane génnee nag ci ci ci fi mu doon sangoo sol yërëm ñëw taxaw. di wax gars yi kenn faalewu ko ni ko ñaari Souleymane nu mu fi mën a amee ñun benn buur lañu am muy Souleymane mi ngi ni toog ci gàngu gii mhm. di santaane li nga xam ne moom la war a santaane ñu koy def léegi yow nga ñëw naan ñu yaay Souleymane jugal fii waa yow di ko dóor di ko saaga di ko sànni ay xeer di ko bëmax di ko xëpp suuf ba Souleymane dem ca ca taatu tefes ga dëkk fa dëgg la Souleymane dem ca taatu tefes ga dëkk fa seytaane boobu jinne shayatin la boobu mhm. seytaane boobu jël jaaro Souleymane bi mhm. euh, takk jaaro Souleymane bi yor yor yor pouvoir bi euh, jékki-jékki dem bàyyi gaa yi ni leen man leen rek laa leen di xamal léegi man daal képp koo xam ne fekkati naa la ngay def lu baax képp koo xam ne fekkati naa la ngay def lu baax wala yu mel noonu xamal ni maa ngi sa kaw jox leen ay directive te lépp ay safaan la léegi daal ni leen nag maa ngi dem te ñëw man man man la Souleymane mais maa ngi dem te ñëw bi mu jógee xam nga nu mu def dafa jël jaaro ba ni comme tas naa kër Souleymane man jaaro bi soxla boobu mm-hmm. jël jaaro ba sànni ko ci géej gi la def yonent yàlla Souleymane mi ngi ci tefes gi te xamul ni xamul ni seytaane bi jël na jaaro bi sànni ko ci géej gi Souleymane daa mujj waa dëkk bi faaleetuñ ko Souleymane benn waay buy napp benn waay buy napp lay àndal waa ji waa bu nappee Souleymane jàppale ko mu napp waaji ñaari jën la koy fay ñaari jën Souleymane day jaay benn bi <coughs> lekk benn bi ndax kenn faaleetu ko ñaari jën Souleymane day jaay benn bi lekk benn bi jaay benn bi lekk benn bi ba bis mu ànd ak waa ji dem nappi ñëw waa fay ko ñaari jën yonent yàlla Suleymaan jaay benn bi beneen bi mu war a lekk moom la xotti bi mu ko xottee rek gis jaaro ci biir jën bi. la xamu ko woon. te xamu ko woon ko bi mu xoolal lu toll ni ab yonent laa la wax. bi mu xottee jën bi ci la gis jaaro bi ci biir jën bi. ci la jël jaaro bi nag takk ko bi mu takkee jaaro bi nag ci la pouvoir bi yëpp dellu siwaat bi mu takkee jaaro bi ci la pouvoir bi yëpp dellu siwaat ci la entamé nag liggéey boobu ñi mu ko doon liggéeyloo nag liggéey boobu mooy shayatin yi jinne shayatin yi euh, tabaarakallah su la ñuy ñuy liggéey di liggéey di liggéey diir bi ñuy liggéeyee palais bi avant palais bi pare ci la Souleymane deewee te Souleymane bi muy dee mi ngi taxaw mi ngi taxaw mi ngi taxaw yor aw yat waaw Souleymane bi muy dee mi ngi taxaw yor aw yatam def nii taxaw def nii mais sayaatiin yi danoo jàpp ñoom Souleymane gi dund moo tax ñu continuer di liggéey benn max moo ñëw di lekk bantu Souleymane bi di yéeg di lekk bantu Souleymane bi di lekk bantu Souleymane bi ba lekk ci loo xam ne bant bi la laalatoo suuf ci la Souleymane daanoo bi Souleymane daanoo nag ci la ci la jinne shayatin yëpp tàmbali nag daan ni eh Souleymane daanoo na Souleymane dee na nangam nangam léegi on libre libre na nu foofu la ñu tasaaroo waatee nekk di def ravage yi nga xam ne ñoom lay def ay le roi haahami ah, ah ambassadeur iblis ñoom ñëpp ca lañu génnee parce que jàpp nañ ni ginnaaw Souleymane ñun ku ñu mënal dara amatul tey borom fajiru naajiru ajjuma bente ñëppinte yaa ne ko ni caamaani ko ni taman kaasam waaji kenn lu mo yeggaleel foofu neex na jàpp nañ ni ginnaaw yonent yàlla Souleymane ku nu mënal dara ba man ñoo canaliser amatul te effectivement wax nañu dëgg alaaj Cerno mu lay sow ngi ci yoon effectivement wax nañu dëgg ginnaaw yonent yàlla Souleymane jinne li mu fi def ci dégâts kenn xamul nu mu toll. diggante yonent yàlla Souleymane ak jamono jii ñu toll. diggante Souleymane ak jamono jii ñu toll jinne li mu fi def ci ay dégâts kenn xamul nu mu toll. gis nga ba ci ba ci boo demee ci yonentu bi alayhi salaatu wa salaam. yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. yëgooni bi muy jugee Makka. di dem di gàddaay Madinatul Munawwara yéeféer yi bëgg koo dab rey ko ay jinne ko feeñal. ay leen feeñal dëgg la. jinne yi ñoo ni jazallahu xayra naas xayra jazaihi rafiqay na xalla xaymatay umma maabadi huma nazala bil barri summa taraxala qad aflaha man amsa rafiqa muhammadi ah. jinne yoo ko wax jinne yi ñoo toog gars yi di wër di def nii naan waa moom fu mu war a jaar jinne yi daan ne ah am na daal yonent bu jigi fii di gàddaay am na ko mu àndal yàlla na leen yàlla fay ñu ngi wàcc daal fu ñuy wax kër ummu maabat wàcc nañ fa naan naan nañ fa soow départaat nañu madinatul munawwara la ñu jëm laa ilaha illallah cay ci la yéeféer yi jógee di wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah gis nga kon euh, jinne ak ak ak ak àdduna jinne shayatin ak yàqam dafa yàgg waaye problème bi mooy dëgër na bopp dëgër bopp goo xam ni Euh, maanaam tuubloo ko moo jafe jinne tuubloo ko gis nga ji nit ak jinne yàlla saqalay ni lañ leen tudde saqalay ñaar ñu dëgër bopp ñi bu ñuy wax nit ak jinne saqalay ni la tudd saqalay ni saqalay ni boo ko déggee mooy ñaar ñu dëgër bopp ñi te jinne moo dëgër bopp moo gën a dëgër bopp nit parce que nit nag yàlla teral na ko dëgg la dëgg la nit yàlla teral na ko ndax yàllaa ni wala xat karam na ba ni aadama waaye yàlla may na pouvoir jinne pouvoir boo xam ni may ko nit may ko nit ñu baree baree bari ndax bu dee xam-xam bu dee xam-xam maanaam nit ku ëpp jinne xam-xam dañ koy xool xoolaat ko xool ko xoolaat ko xool ko xoolaat ko jinne dafa bari xam-xam bu dee doole euh, benn jinne fanweeri doole fanweeri doole naari góor la yor benn naaru góor fanweeri doole waxambaane la yor naaru façon naaru góor yi ngay gis ñu hmm. leen takk saret benn naaru góor boo ci gis fanweeri doole waxambaane la yor ay mbëri yi ngay gis nii seen fanweeri doole boo ko boolee moom la benn naaru góor yor benn jinne boo ko gisee fan weeri doole yu naari góor la yor kon ku dul wëlliyu mhm. kon ku dul wëlliyu mhm. amoo wilaaya mhm. mënoo xeex ak ginna daaneel ko loolu mënul ne baatu sëriñ dafa late dafa late de baatu sëriñ dafa late ku jóg ñu ni sëriñ ku jóg ñu ni sëriñ ku jóg ñu ni te am na ñoo xam ne tey xam nga xam nga tey nga doon ab sëriñ ak force ma doonu sëriñ ak sëriñ ak tey ma dib sëriñ ñett yooyu ñoo fi ne de mataar <laughs> tey ma doon ab tey nga doon sëriñ ak force ma doon sëriñ ak sëriñ ñett yooyu ñoo fi ne am na koo xam ni xamul dara xamul dara donte baayam hmm. daan na ñaan wala yu mel noonu mais moom xamul dara donte baayam xalifa la wala am na nu mu sant moom ah, xamul dara baayam a dee rek ñu ni ko yaa fi sës kon kaay doon sa baay donte xamoo tus nag ah. waaye dinañ topp sa ginnaaw sagale ko sunu bopp loolu mooy tey nga doonu sëriñ mm-hmm. force ma doon sëriñ nag mm-hmm. mooy koo xam ne gis na gis na Alaaji Thierno Moule Sow liggéey bi muy liggéey gis na liggéey bi muy liggéey gis na gis na gis na nit ñi niñ koy dikkalee gis na li muy fayee ko ni mu chéré teewul nit ñi di ñëw gis nga nit ñi defuñu ñu ñu dofuñu du ñu mën a fay cent mille franc wala am na sëriñ ñu ñetti junni am na fi mm-hmm. sëriñ yoo xam ne ñaari junneeg <laughs> ay ay ay ñetti junneeg <laughs> waaw yooyu la yooyu la ñuy laaj am na fi léegi nit ñi bàyyi leen fa léegi ñëw di fay ay dix millions lan moo tax ñuy def loolu ak vingt million am na ñoo xam ni loolu la ñuy gis gàddaay yu ci kër gi am na ñoo xam ne loolu la ñuy gis teg ci seen bët teg ci seen bët daal ni man daal force ma doon ab sëriñ daa di dem fee wut sa ay affaire wut wut wut wut daa jaxase jaxase jaxase. nga xam ne daanaka boo duggee seeni kër sax euh, luxure bi du fa du du du ci am. maanaam boo duggee seeni kër yow dèjà li li maanaam décor bi moo lay njëkk soof ca kër ga. kër gu la décor bi soofee doo fa wéree. <laughs> doo fa wéree kër gu la décor bi soof. doo fa wéree billaahi doo fa wéree. loolu am na ñoo xam ne dañ naan. force may doon sëriñ. ak sëriñ sëriñ nag mooy kan doyen mooy koo xam ne yàlla moo ko may. yàlla moo jël ay mayam may ko ko ndax yàlla nee na seeni problème hmm. cent ans bu jot dinaa indi koo xam ne problème boo leen am dina leen ko régleel cent yu ne danaa indi koo xam ne problème boo am boo leen am di dina dina dina leen ko régleel moo xam ngeen xam ko nag moo xam ngeen njàkk koo xam boo leen ko xamee jox ko cëram hmm. teg ko fi ngeen ko war a teg muy seen njariñ bu fekkee da ngeen iñaane wala ngeen soxore ko wala lu mu mënti doon man yàlla may naa ko ba pare te damay continuer di ko jariñ yéen nag yéen ay wàññeeku mhm. yéen nag yéen ay yàqule yéen nag yéen ay def nangam ak nangam ak nangam ak nangam suma radanaaw asfala saafiliin yéen ñi nga xam ni nangulu leen ko yàlla nee na yéen lay dal mais bu dee moom bu dee moom sëriñ bi sunu boroom nee na may naa ko li ma koy may ba pare mhm. te li ma ko may man yàlla dootuma ko nangu waaye daal ci gàttal laaj bi nga laaj mhm. mooy diggante yonent yàlla Suleymaan mhm. ak sëriñ bi boo xoolee différence bi mu am mooy Suleymaan am na jinne yoo xam ne gëmuñu woon gëmuñu woon voilà waaye sëriñ bi nag jinne ju ma àndal gëm nga ah. jinne ju ma jàkkaar lool gëm nga gëm nga jërëjëf jërëjëf euh, oustaz oustaz Babacar Dieye alors donc euh, oustaz merci encore une fois de plus ci parenthèse boobu nga ubbi parenthèse boo xam ne nii yaa ngi ko jëlee ci lislaam yaa ngi ko jëlee ci alxuraan mu ñëw dëggal waxtaan bi ñuy waxtaan tey muy émission li ci jinne c'est vrai que sëriñ bi jinne dafa am bayre am na doole oustaz wax na ko léegi mais dafa am beneen phénomène boo xam ne nii léeg-léeg duñ koy tudd mais moom tamit bu dangereux la te maa ngi fàttaliku il y trois ans de cela ci benn émission mosoon naa la poser question boobu d'ailleurs extrait bi ça a fait le tour des réseaux sociaux muy dëmm muy dëmm sëriñ bi buggoon na nga ñëw ci diggante dëmm ak jinne maanaam ban moo ci gën a soxor macha allah <coughs> doyen jërëjëf di rafetlu kàddu ndeysaan oustaz imam babacar ci xam-xam bu sell bi ci xam-xam bu leer bi ma ñëw tuuti rek ci moom ci comme nu mu ko waxee euh, ñu bëri léegi ñoo ngi dugg ci wàllum sëriñ ndax gis nañ ne macha allahu sëriñ bi yàlla teral na ko sëriñ bi moo ngi fayee ko ay millions euh, ñoom it ñu ne ah ñun tamit xaaral ñu def affaire sëriñ di woote affaire jinne di jéem a faj waaye nag li ñuy wax roy du ndurug piir ndax nag ni ko Oustaz Babacar waxee am na sëriñ ñi nga xamante ne ñoo ngi laaj ñetti téeméer ñii ñoo ngi laaj juróomi téeméer ñii ñoo ngi laaj ñetti junni ñii ñoo ngi laaj ñaari junni defe naa ni ñun ba ñu démarré foofu la ñu déparé woon waaye tey dem nañ ba di laal ay millions dem nañ ba laal ay cent millions ay deux cent millions ci wàllu ay faj ci wàllu ñaan di fayeeku defe naa ne yi ñuy gën a fayeeku lu mu gën a ndaw defe naa ne un million cinq cent deux million trois million defe naa moo gën a tuuti ci yi ñuy faj ci wàllu jinne ak kon nag defe naa ne comme nu Oustaz waxee euh, macha allah dañuy gis ne sëriñ bi yàlla teral na ko ci faj bi ndax nag ah, lu maanaam euh, li ñu wax ne euh, loo doonul taalibeem doo doon sëriñam ndax man wàllu faj defe naa ne dama cee rampe defe naa ne Matar wax na ko ba may njëkk a tàmbali defe naa ne jàmm gan foofu laa tàmbalee Jaksaaw quartier Abdou Ndiaye jóge foofu dem Touba Mbacké Touba am naa fa juróomi at ci wàllu faj wàllu ñaan defe naa ne Touba Mbàkke kilifa yëpp xam nañ ma xalifa généraux yëpp xam nañ ma parce que jëflante naa ak ñoom jëflante naa ak seen i soxna jëflante naa ak seen i doom xam nañ kan mooy Thierno Moule Sow ku am juróomi at biir Touba Mbàkke di faj di def di dindi biir Touba Mbàkke defe naa ne macha allah duggee fa ba mu fay dugg nee naa la ci benn kër lañu ma hébergé woon mu dem ba mu yàgg ma am pantere mu dem ba mu yàgg ma loué mu dem ba mu yàgg Euh, ma loué ma loué néeg mu dem ba mu yàgg mu jël ma jël foofu euh, zaaru studio vraiment di fayee ko ay millions biir Touba Mbacké di jàppale soxna yi seen i boroomi kër parfois soxna yi am jafe-jafe ak seen i borom kër maanaam xam nga jékki-jékki rek seen sëy di tas ak yooyu fexe di réparé waat yi di defaraat sëy yi defaraat diggante yi defe naa ne soxna yi di tekki seen ceenu or di ma ko jox di ma jox xaalis bu bari macha allah nee naa foofu laa njëkk a laale ay millions ci wàllu faj biir defe naa ne Touba Mbakke xam nañ kan mooy Thierno Moule Sow ndax defe naa ne sëriñ yi bëri ñëwoon nañ jóge nañu Dakar fekk si ma Touba dañoo mujj daw abal ma Touba ndax macha allah ba ma ne fa cëpp defe naa ne kenn déggatul benn sëriñ foofu buy def faj ak ñaan ku dul mu Moule Sow juróomi at maa ngi biir Touba Mbakke daaru xudus daaru minam 28 vraiment lëmbe naa biir Touba mm. wane fa xam-xam wane fa baatin dem na ba nit ñi dañ daan jóge Dakar fii di ma fekk si biir Touba ma leen di faj kon man faj macha allah man faj moo ma ndax dama rampe ci faj dama sonn ci faj moo tax tey maa ngi sant suñu borom bu baax a baax ndax nag dama sonn ci faj amul fu ma demul ci àll bi amul fu ma demul du uti xam-xam euh, léegi nag bu ñu jékki-jékkee gis sëriñ bi yàlla teral ko rek ñu ne ah ñun tamit xaaral ñu dugg ci affaire sëriñ ah déet du mun a du mun a yem nag te du mun a yem ndax sëriñ bi dafa rampe dafa am fu mu jaar xam-xam jaral na ko mu jaay bakkanam xam-xam jaraloon na ko mu xiif jaraloon na ko mu mar mu dem fu ne waaye fépp fu mu dem rek yàlla ne ko déet yow yow yow yow sa waxtu jotagul ba waxtu bi jotee nag macha allah defe naa dafa feeñ te lu ne fàng kenn du ko jeex defe naa ne c'est la seule marabout c'est la seule médecine traditionnelle buy génne ay millions defe naa def ko suukaru koor defe naa ko du benn yoon du ñaari yoon laa ko def def naa ko yoon yu bari vraiment jàppale ñu bari boo gisee sax ñu xaw a wàññeeku léegi ak warkat yeeg yooyu day dem sax ba dalay tax nga xaw a arrière tuuti Euh, macha allah mus euh, ñu ñëwaat ci doyen loolu laa bëggoon leeral rek ci question. ci ci li nga posé Oustaz Babacar mu développé <clears throat> foofu aussi ci xam-xam bu sell bu mu wax ci yonte yàlla Souleymane xam nga yonte yàlla Souleymane ni ko ni ko ni ko ni ko Oustaz Babacar waxee macha allah yonte yàlla Souleymane euh, maa ngi moom yemuñu macha allah du benn ndax moom dafa nekkoon ak jinne yi nga xamante ne gëmuñu ko nanguluñ ko. maanaam ay saytaane lañu man na jinne bu ma nekkal da nga maa nangul jinne bu ma nekkal dama laa tuubal aussi. waaw jinne bu ma nekkal danga ma dama laa tuubal te man yoruma jaaro ba ba suma summee jaaro yi du ma mënal jinne yi dara ndax boo xoolee yàlla wan na ko foofu mu tumranke tuuti moom yonte yàlla Suleymaan maanaam mu nekkoon buur di bummi mu dem ba mu ba si digg bi mu nekk mu dem ba nekk sonn foofu ba tumranke vraiment nga xamante ne suñu borom moo mun a may waaye nag man ab may bu suñu borom may ah, du du ay jaaro du du ay da ngay takk lii wala da ngay tekki lii wala booy sangu nga nga bañ mu tooy wala non non lii dafa nekk daa émataan mm. ngay jàkkaarloog jinne xool ko say bët gis ngeen barki Dembo Njaay kooku ñëwoon jinne Chaatin boobu su ma bët laa ko capturé ba capturé jinne bi defe naa ne loolu ay may la wala jinne gis la rek daanu loolu mayum suñu borom la maanaam lu yonente lu suñu borom defaloon yonte yàlla Muhammad si yonte yàlla Souleymane ci jaaro bi moom la ko moom la ma ko euh, renforcer ci sama ci sama sama sama ci sama sama sama melokaan ci fépp nga xamante ne macha allah du jaaro du ndomba du dara macha allah. waaw waaw macha allah waaw maanaam lépp lu ma laal rek day ànd ak baatin loolu suñu borom moo ko def. loolu nag ñu bëri dañ koo nanguwul waaye nag seen xol yi day ngur gu ngar ga ndax lu ma neex laa jàppee jinne te Matar wax na ko sànq amul lu ma man man façon bu ne defee naa ko ak jinne xojal jinne mbéj kur feñ bulon kunkang amul lu ma maanaam lu ma xalaat rek lu ma xalaat rek dama koy dama koy dama koy liggéeyloo jinne maanaam maanaam lu ma lu nekk sama xel rek dama koy influencer jinne forcer leen ko ñu def ko kon man amul lu ma wanewul ci wàllu jinne nga laal nag fu fu fu nga xamante ne fu dangereux la nga laal fu fu fu dëgër fi nga xamante ne nit ñi dañ koy dañ koy wër dañ koy wër maanaam dañ koy moytu sëriñ si duñ ci ñeme wax waaw muy wàllu dëmm waaw muy wàllu dëmm waaw dëmm nag doyen dëmm nag dana doon nit njaay dana naan ataaya dana dana am soxna. Mhm. dana am boroom kër. Mhm. dana dana dana jiite. dana julli ba jëm bënn ba boo ko gisee rek. nga ne ko kii kat nitu yàlla la. dëmm dana mel noonu. Mhm. oustaz dëmm dana dem màkka. dëmm danay saraxe. dëmm danay def lu baax. ndax daf koy camoufler woo maanaam lu ñuy wax affiche affiche Inde Monte maanaam day affiche Inde Monte Kaboy dëmm dafa garaaw doyen dëmm dana nekk nit njaay. defe naa ba ma yàggee wax ci dëmm dafa yàgg boo leen duggee vidéo yi jamono yi ma nekkee Touba jamono yi ma nekkee euh, Sicap mbaaw di wax waxu dëmm dëmm aussi dina nekk nit dëmm nag dana lekk lekk lekk lekk ba mënatul lekk mu daal di nekk nag nooxóor waaw bu demee ba mënatul lekk parce que comme man ñu may jàpp ma leen jàppee dootuñu lekkati bu ma leen jàppee dootuñu lekkati dëmm nag nit lay doon dina doon nit dina doon jinne dëmm dafa garaaw doyen lu mu soxla mooy deretu doomu aadama lu mu soxla mooy xolu doomu aadama yuuru doomu aadama euh, nit comme yow nga lekk ko dëmm dafa nekk lu garaaw li nga xamante ne dafa bëri ci suñu réew mi da ngay dem takk nit fekk xamoo ne kooku famiyam dëmm la wala nit takk la fekk xamoo famiyam dëmm la wala am xarit xamoo ne moom dëmm la fekk moo ngi lay fexel di la fexel macha allah dëmm day fatt nit ba nit ki dee na fekk nit ki deewul dañ laa fatt def ci yow benn affaire ñu dem suuli la bu ñu la suulee ci armeer guddi ñu soppaleku dem sulli la paacoo la lekk la su ko defee bu ñu lay lekk yow instant boobu noonu doo nekk doo doo am xel dañ lay dofloo coob la dëmm dafa nekk lu garaaw li nga xamante ne lu dangereux la dëmm doyen dafa nekk li nga xamante ne dañuy dañu am ay hélicoptère ñoom seen hélicoptère yi dañ ciy sol eh, essence essence buñ ciy sol mooy lan deret doomu aadama da ngay gis ki nga xamante ne Matar macha allah euh, day animé rek saa yu demee hôpital ñu bindal ko ay fer muy animé rek fekk dëmm yi ñooy ŋàcc deretam deret boobu ñuy ŋàcc ci nit ki moom la ñuy sol essence suñu buggee naaw dem États-Unis dem foofu lekk nit suñu buggee naaw dem France bu ñu buggee naaw dem Louga dem fa dëmm dafa nekk li nga xamante ne xam-xamu kàccoor la xam-xamu saay-saay la dëmm dañoo am seeni i seen i seen seeni seen i dañoo am seeni i seen i seen détecteur dëmm dañoo am seeni fii lañuy toog di gis li nekk ci biiru nit ki fii la ñuy toog di xam nit ki fii la ñuy toog di gis wërsëgu nit ki dëmm dafa nekk li nga xamante ne Sénégal du ko wax dañu koy cof parce que ñemewuñu ko ndax sëriñ buy wax ci dëmm boo yàggee dëmm yi dañ lay sot dañ lay lekk dañ lay faat dañ lay rey man nag ba ma dalee wax ci dëmm yàgg na dëmm yi dañuy complot ñëw ma xeex ak man ma duma leen ñu daw defe naa ne mbirum dëmm mooy lu rëy li nga xamante ne fan yi problème yi am fii dëmm yi euh, noos nañ ci bu baax a baax naan nañ ci deret yi bu baax a baax <laughs> mooy problème bi am fan yi mm-hmm. dëmm yi naan nañ ci deret parce que deretu doomu aadama lañuy dunde loolu daf leen di yokk seen pouvoir tey bu ñu mënoon naaw fii ba fii ba bu ñu mënoon naaw fii ba tëngeej tey bu ñu naanee deretu doomu aadama mun nañ naaw fii ba barñe kon mu nekk dëmm lu garaaw la dëmm lu dangereux la dëmm nag du lekk ku dul mbokkam wala ñu jaay la mbokkam dëmm dafa garaaw doyen mu nekk lu doy waar li nga xamante ne jigéen bu ëmbee Euh, dëmm da euh, day mel ni nga teg sa supp muy xeeñ jigéen su wasinee dëmm noonu lay xee maanaam sa supp boo tegee fii supp xam nga day ëbbale koñ bi yëpp muy mm-hmm. xeet supp bi xeetu supp bi su jigéen wasi ëmbee première ëmb rek moom sax xamul ne ëmb na dëmm fu mu toog da koy xeeñ day xam ne ne kii ëmb na kii kan la ëmb mooy kii ku nar a tekki la kii ku nar a jëriñ la su ko defee ñu daal di soppale ko dem lekk ëmb bi wala naan biir bi defe naa ne dëmm dafa nekk lu doy dëmm mooy kan mooy ki nga xamante ne xam nañ ne kii ku am wërsëg la ñu daal di kale la lekk sa wërsëg def loolu accident wala kale sa wërsëg teg la ay ñàkk ay musiba dëmm mooy li nga xamante ne lu doy waar la dëmm mooy li nga xamante ne nit njaay lay doon day ñëw foow ak yow réew ak yow fekk moo ngi la bëgg a lekk macha allah dëmm mooy kan mooy ki nga xamante da lay ñëw lekk la le ñëw lekk la si guddi gi coob la cuqum cuqumee la suba <laughs> dëj bi mu njëkk a ñëw jaale jooy yuuxu mhm. way sama ndey yooyu daanu kooku mooy dëmm dëmm mooy li nga xamante ne lu garaaw la mooy da ngay teg sa xaal bu ngande dëmb bi coob lu nekk ci xaal bi fekk xarul xaal bi dëmm dafa nekk li nga xamante ne lu dangereux la boo amul xam-xam dañu lay faat ba ma yàggee wax ci dëmm yàgg na waaye dëmm bu ma dëkku ñàlli ndax fa sosum gaynde la ko fecc yombul la xalif général des jinne ni ko Moustapha di waxee nelaw yaa ngi nelaw ci émission bi Moustapha buróod yi dëmm <laughs> macha allah la Thierno Moule soo nga xamante ne ñan ne ñaama ñaama waawa taala ñaamu de maandu lu dëmm bu ma jàkkaarlu duma la mm. ñaata nit laa sauvé ñi nga xamante ne ndeysaan su dul woon man tey faatu nañ mm-hmm. Mm-hmm. ndax xaalis du dara tey même boo ma joxee deux millions trois millions bakkan moo gën a foor loolu tey ñaata nit tey ñoo waroon dee tey ñu ñëw ma ma dimbali leen tey xeex ak dëmm yi ba ñooñu ñu rëcc tey ba tey ñoo ngi dundu tey tey ñoo ngi développé ngir suma ngir yàllaak man ñi ma jàppale tey dafa bari ñaata nit laa faj xaw ma ko ba ma dalee faj depuis Touba ba yàgg na ñaata nit moo tax tey fu ma toll nii da damay sant suñu borom ndax man faj moo ma teral ndax amul lu ma fajul amul ku ma dimbaliwul man maa jaaxal damay maa jaaxal jinne yi damay man la ñuy waatee mhm. man damay génn ci mbedd sax jàkkaarloog nit ma xam ne dëmm la dafa may gis rek changé wala mu gis ma rek énervé waaw waaw parce que du ma mun a supporter parce que day xam ne ne kii xam na ma daf may faral di dal lu bari damay jékki-jékki xam ne ne kii dëmm la su ma ñëwee nit ñi di ko song day yàkkamti ma jóge foofu parce que xam na ne bu mu fa toogee day jëfaru mhm. Euh, dëgg la sëriñ bi loolu benn point laa la indi rek. waaw ci wàllu dëmm mhm. waaw. waaw euh, donc li olof yi di wax proverbe boobu naan dëmm rey la jaale la c'est réalité sëriñ bi dëmm ndax dañ koy donn ci ndey wala ci baay wala day juddu rek nekk ci biir famille bi. juux fa jërëjëf doyen dëmm mun nga ko donn ci sa ndey mun nga ko aussi bañ a donn mhm. mais li ci bëri ñenn ñi. dañ dañ koy donn ndax sa yaay ba mu lay ba mu lay euh, ëmb fekk na moo ngi lekk su lekkee nit yow da ngay lekkaale ndax waaw waaw boo nekkee sa biiru yaay sa yaay bu nekkee jamono yu mu la ëmbee moo ngi naaw di lekk ay nit yow da ngay coobaale dangay nekk dëmm sa yaay ba mu la wasinee ba mu lay nàmpal su nekkee ne moo ngi lekk ay nit yow da ngay da nekk dëmm waaye yàlla mun na la dimbali sa yaay ëmb la ci biir ëmb boobu yàlla dimbali la ba lekkul nit mm-hmm. yàlla mën na la sauver nga bañ a nekk dëmm yàlla mun na la dimbali sa yaay wasin la di di la nàmpal jamono boobu amuñu ñu ñu lekk lekkuñu kenn mun na la sauver ba doo nekk dëmm wala ilaa ñu jàngal la dëmm wala ñu dem jàpp nit rey ko togg supp ko wala wala banaaf ko wala maafe ko ñu ñëw jox la ci yàpp bi nga lekk nekk dëmm nga nekk dëmm waaw waaw dañuy supp dañuy maafe moo tax nga dem rek ñu jox la yàpp ci yenn kër yi parfois mun nga lekk yàpp nit fekk dëmm nga waaw waaw parfois noonu lañ lay dugalee ci dëmm dëmm yi parfois dañuy togg nit bu ñu toggee nit nga ñëw ñu ñamal la ci yàpp bi nga lekk soo lekkee ñu ne ah dugg nga mm-hmm. yow it léegi dëmm nga ñu bari noonu lañ dugalee ci dëmm waaw ah, dëmm dafa garaaw Sénégal boo waxee ñu naan nangam nangam fekk ne macha allah dafa sonal askan bi waaye mm-hmm. nag la xalif général di jinne la king of the king le roi médecine traditionnelle di monde le bureau des dëmm Moustapha wax na ko te dëmm yi saa su ne saa yu ma jëflante ak ñoom duma leen te nag naa la wax leen mm-hmm. saa yoo leen yàqalee ñu attaqué la mm-hmm. waaw boo amul xam-xam dañu lay faat waaw man nag yàlla jàppale na ma may na ma kàttan saa yu ma jëflante dëmm yi duma leen jërëjëf euh, sëriñ bi <laughs> defe naa loolu leer na parce que nag jinne dafa am bayre mais dëmm dafa dangereux alors euh, madame Matar ma joxaat la kàddu gi. ah di la jaajëfal rek man de li ma amoon lu may laaj. mooy maanaam rab parce que rab li muy def dafa bari rab dina dugg ci famille détruire ñëpp tëj seen wërsëg ñoom ñëpp jaxase leen ñoom ñëpp ma xalaat ne rab. ak dëmm ñoom dañuy collaborer waaw dañuy collaborer wala duñu collaborer wala ku ci nekk da ngay aw sa yoonu bopp parce que léeg-léeg nga gis famille boo xam ne dañ naan rab moo leen topp fu ne ñu sampal leen fa nag samp yooyu tamit bëgg naa cee ñëwati parce que est-ce que samp yi c'est réel xam-xam bu wér la jërëjëf Matar rab ak jinne daanaka benn la dëmm ak rab ak ginne yi bokkuñu yoon waaye parfois ñu liggéey. ndax xam nga dem leen ñu coaliser waaw ñu def co <laughs> coalition. Mhm. ànd xeex diw wala ànd lekk nit. <laughs> parfois nga gis dem mu topp nit du ko munal dara. mu fexe wër ut ay jinne wala ut ay rab ne leen ñëw leen dama bëgg ngeen dimbali ma ci nit ki ndax jaaxle naa ci ñoom mhm. jéem nañ ci moom mënuluñ ko dara mhm. su ko defee dinaa leen fay nangam boo leen ko defee ma fay leen lii fay leen tànk wala bopp wala nangam ba pare neexal leen su ko defee ngeen ñëw ñaddal ma ko ngeen ñaddal ma ko bu ko defee jinne yi mu nekk tamit ay jinne walaa kaana ñu afset loolu ñu daal di ànd guerre nit ki parfois dëmm bi tële ci nit ki ñu ñu ñu dem pompe rab bi wala pompe jinne bi ba mu faagaagal nit ki ba euh, dëmm bi lu mu buggoon mu am ko mu nekk affaire bu garaaw waaw parce que dama mës gis koo faj quoi koo xam ne li ko dugg moitié rab la ak moitié jinne benn bi moitié jinne la ak moitié dëmm ñoom ñoo ànd di liggéey ci xale bi mu doon affaire bu doy waar bu ma yéeme daal moo taxoon question bi ma ma ma posé ko daal mais daal dinañ liggéey ñoom. parfois aussi nga gis dëmm euh, jinne jinne bi nga xamante ne bëggul dëmm day am jinne yi nga xamante ne ay noble lañu jinne yi ay ay VIP lañu bëgguñu dëmm. ñoom dëmm bu leen jege sax dañ leen duma loolu day am waaye nga gis parfois ay jinne wala ay rab yi kàccoor xamante ne dañuy defal coalition mhm. euh, ak dëmm yooyu day am mhm. day am parfois aussi nga gis mocce mocce jinne mocce mocce dëmm day am parce que lu waral loolu comme comme comme nga jël laadum ak beneen xar mhm. ñu ñu maanaam métissé ko ñu métissé leen parfois métissé jinne am maanaam jinne dëmm day nekk jinne nekk dëmm defe naa ne yooyu yëpp may wax jàpp naa ci jàpp naa jinne dëmm jàpp naa ay dëmm tuubal leen génne leen ci ay nit jàpp naa ay jinne defe naa ne li ma def ci faj euh, ci ci ci ci monde bi amul kenn ku ko fi def ci monde bi ci wàllu faj ci wàllu rab ak jinne li ma li ma li ma li ma jot a liggéey defe naa ne macha allah amul kenn ku ko fi def te loolu macha allah feeñ na ci man boo gi boo boo xoolee ci man nga xam ne ne macha allah feeñ na ci man waaw waaw. moom ndax moom mbokkam rek lay lekk. wala wala wala wala daal dëbb moom ku mu jekku rek ku mu rek lekk la wala waaw jërëjëf Oustaz sànq maa ngi koy wax dëmm en général mbokkam rek la mën a lekk waaye dëmm mun nañ ko jaay mun mun na ñëw jaay la mbokkam maanaam mun nañ la fexeel yow du ñu la munal dara te ñu nekk say mbokk ñu dem gisi beneen dëmm ñeneen dëmm ñu ñëw ne kii suma mbokk la su ko defee euh, dama bëgg ñu ñu songandoo ko dama bëgg ngeen jàppale ñu pour ñu tëral ko ndax kii daf ñoo jaaxal parfois ñu yónni ay jaan lumbu jaan yónni ay jaan nga tëdd jaan ñëw màtt la nga dee yooyu tamit day am ay ñi nga xamante ne ñu daalu dëgër ñu dëgër ñu am baatin ñi parfois boo dëgëree dëgg dafa am ñi yor ay jaan jaanu dëmm lay doon maanaam dañuy yebal jaan bi ci yow boo tëjee sa bundu tëj sa palanteer tëj sa kër Euh, jaan yooyu foo mën a ne da lay fekk fi nga nekk mu màtt hmm. la nga dee loolu gis nañ ko fi gisati ko fi waaye loolu day fekk amoo baatin loolu boo amee xam-xam jaan bi balaa moo ñëw dañ koy koj duma ko ray ko macha allahu ño ñan ne ñaama ñaama waawatal la ñaamu de maandu lu dëmm dafa nekk lu garaaw li nga xamante ne macha allah moo ngi assemblée moo ngi pale moo ngi moo ngi fépp dëmm fu ne la ne ñun ñun ñun suñu biir sax parfois dëmm day rax suñu biir ku amul xam-xam munoo ko xam wala xanaa ñu jógal la sëriñ bi wax nga lu garaaw de dama ngi fu ne <laughs> mën ko wax nga lu garaaw dama kay fu ne la ne ci àdduna bi ah fu ne la ne dëmm yi moo ngi jaxasoo ak ñun ah moo ngi ci moo ngi ci opposition bi moo ngi ci pouvoir bi moo ngi fu ne dëmm fu ne lay ne moo ngi ci kër sëriñ si ah fu ne la ñu ne ah, ah kay amu ci dëmm yi dañuy jaxasoo fu ne fu ne la ñu ne hmm? waaw waaw ah sëñ bi loolu garaaw na de ah waaw ñun ak ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo nekk nag a ah, sëñ bi baa duñ ñëw ci kër gi. ah mais am na ñu daan ñëw dama leen di jàpp. <laughs> man jàpp naa fi ay dëmm yu bari. loolu kay xam ngeen ci dara. man dama lay kepp man moom dama lay jàpp. ah waaw lu ma koy doyee. du mën dara moo tax. te du ma bëgg a fat non non non. usaas boo tuubalee dëmm day day nekk noohóor maanaam dootul munati lekk. dootul mën a mënati def dara waaye lu dëmm yi di def da koy gis. ah d'accord bu dëmm yi di naaw day gis. Mhm. su dëmm yi di coob day gis waaye moom du mën a maanaam da ngay dindi wekki bañ dëgg la xam nga ko amul bañ. doo mën a lekk yàpp mhm. ah. la doo mën a lekk. bañ yi laay wekki. dëgg la su ko defee du mën a lekkati yàpp. Mhm. ba pare tuubal ko mu xaraamal ko. ba dootu ko mën a defati. dëgg la ah. <laughs> non dootu ko ti euh, mustafaa defe naa am nga benn question. waaw euh, sëriñ bi euh, ci xam-xam bi la yàlla suñu borom jox dañuy gis fépp ci àdduna ku jaaxle rek bu defee ñetti alaaji Thierno Moule Sow aajoom faju mm. loolu moom sëriñ bi buggoon nañu aussi nga expliquer ñu ci tuuti également parce que euh, lu yéeme la maanaam may yàlla la xam nañ ni yàlla moo la ko may waaye lu lu yéem àdduna la. jërëjëf Moustapha Fall. xam nga xam-xam tout le temps da nga ko war a peese natt ko defe naa ne wax naa ko waxati ko ñetti Thierno Moule Sow yi almadi foofu ndeysaan laa doon tëju di dagg juróomi kafe di ko naan du ma ci def suukar du ma ci def ndox mu tàng di wirdu di ñaan suñu borom ci sama tur boobu defe naa ne wax naa ko waxati ko te tur bi wax dëgg yàlla nit ñi gis nañ ci seen bopp partout dans le monde am na ñu ci am visa am na ñu ci am doom am na ñu ci tukki. am na ñu si am liggéey am na ñu ci na am na ñi xam ne dañ leen naroon tëj ñu def ko tëju ñu leen am na ñu si naroon am jafe-jafe ba ñu ko defee macha allah yàlla dimbali na leen yàlla nag mooy maye yàlla kenn du ko poñe waaye dañ koy imposer ndax tur boobu noonu dama tëj ay ay tëdd ay guddi euh, tëju di wirdu di wirdu vraiment di ñaan suñu borom di insister ba suñu borom nangul ma ko muy ñetti Thierno Moule Sow yi loolu nag macha allah ku xamul dara def ay ree wala waaye lu def ree nag. ndax yàlla lu muy maye maye na ko ba pare te yàlla dafa mën a maye gannaaw day may ñeneen ñi nga xamante ni du ñu ay jullit rawatina nag jullit bi nga xamante ne vraiment euh, te dafa ne ñaan leen ma ma may leen kon nag yàlla moo ma may suma ñetti tur yi vraiment ñu bëri faju nañ ci loolu mooy première social bi nga xamante ne euh, wër na adduna bi nga xamante ne am na ñu nekk États-Unis ñu nekk France Allemagne musuma leen gis dañu may woo di ma gërëm di ma remercier parfois ñu yónnee ma xaalis sax ma ne lii nag man de sa tur bi moo ma dimbali. moo ma jàppale ma am liggéey wala sa tur bi da dama tëdd guddi mënu ma nelaw ma wax sa tur ma daal di am jàmm wala dañu ma bëggoon tëj ma wax sa tur ñu bàyyi ma wala nii wala nii sëriñ bi yónnee naa la lii addiya loolu dañ koy sante suñu borom yàlla mooy maye. sénégalais nag du teel a nangu. boo xoolee fii ay kilifa diine yu bëri jaar nañ fi ay wali yu bari jaar nañ fi seen jamono kenn faalewu leen kenn gëmu leen kenn nanguwulu leen ba ñu demee nag la commencé di wër seen i dàll di leen jéem a nangul kon man bu ñu ma nang bu ñu ma nangulul man loolu lijjantiwu ma leen faalewu ma leen ñi may nangul nangul nañ ma ñaa macha allah ñi ñaa ngi ñëw te ñi ñaa ngi may fay ay millions ma leen di faj ñuy gis te boo ma gisee da nga xam ne ne kii sonnul yàlla teral na ko te lépp ci faj bi la kon loolu man ku nangu ku nangul man lijjantiwu ma la ndax man macha allah yàlla nangul na ma ba pare waa waa waa waa waaw moo tax man <laughs> namuma tos maa ngi sant lépp nag ci wàllu faj bi kon nag ni ko mataar doon waxee rek du dem du dem du dem yeneen ngi xoole rek muy dem ngeen di xoole rek ba mu am ay titre foncier fii nga xamante ne macha allah ci booru géej gi yëpp daanaka léegi ñu jeexal géej gi yëpp presque suñuy terrain lañu du dem du dem du dem macha allah ba yàllaa ngi koy dimbali yàllaa ngi koy suturaal ci lépp ci liggéeyam faj bu muy def di jàppale jaam ñi ñuy gis di dem di ñëw nga xam ne ne kon yàlla moom mun a maye sénégale nag ñoo mel noonu waaw dañuy li maanaam li ñuy wax jege kiraaya nit ki da jege nga xam ne kii yàlla may na ko doo nangu su ko defee ay jàmbur ñu jóge fu sori ñëw nangul ko ñu seen aajo di faju macha allah ñoo ngi sant bu baax a baax di jul yonent yàlla Muhammad salaa salaam. nga xam nga foofu xam nga foofu xam nga foofu euh, foofu foofu nga kii noonu. ci ci ci turu ala Thierno Moule Sow bi. Mhm. xam nga Thierno Moule Sow mooy boo ko boo ko déchiffré mooy Allahu kun. boo ko adatee. waaw boo ko boo ko déchiffré waa mooy adat mooy déchiffré bu dee tubaab bu dee hmm. arab nga ne adat waaw ah, boo ko déchiffré mooy allahu allahu kun allahu kun waaw waaw mule waaw mule miim miim quarante la lam trente la hmm. quarante plus trente soixante dix soixante dix soixante mooy kun mooy kun saw siin soixante la hmm. waaw six la soixante ak six boo ko boolee muy soixante six. Mhm. soixante six mooy Allahu. waaw loolu nag code la boo xam ni. Mhm. yàllaa ko ko baaxee <laughs> moom itam looloo tax. <laughs> guddi yooyu loolu ñu bari code la boo xam ni yàllaa ko codé ci moom. mu xam code boobu. waaye lu mu ci mënti doon da ngay dangay dugal code bi nag. parce que loolu bu ko yemale woon ci boppam rek ay affaire man mën baaxe baaxee ci boppam waaye nag il faut mu dugal code bi parce que boo amee wifi tamit hmm. da ngay da ngay da ngay dugal da ngay dugal code bi voilà da ngay da ngay partagé ah, boo partagé boo deful madame Sow numéro un doo doo connecté ku taal sa appartement bi ñu toog boo a connecté de léegi nag bëggoon ñëpp di connecté wu ci wifi boobu bëggoon ñëpp di connecté wu ci wifi fajuk aajo boobu ci allahu kun boobu hmm. looloo taxoon guddi gu jot mu dagg ay café def ci def ci def def def noonu def ci kaas def ci ndox mu sedd te du ko suukar yëngal ko naan toog di toog vingt quatre heures wala ay jours yi jours di wiir di jàkkaarloog sa borom di waaw sa borom di woo sa borom di woo sa borom ba yàlla wuyu ko mu ni ko li ma bëgg mooy allahu kun bi nga xam ne moom nga ma rafaatale mhm. nga jox ma code bi ma décodé ko gars yi di connecté wu ci sama fi fu ñu mën a ne seen aajo di faju mm. donte dun agsi ci ma bëgg ñu gàmm nag noonu fi ne yaa ngi gàmm de. loo ci dolli gàmm de <laughs> jar na ko euh, yàggul ci semaine yee ñu génn nga doon fêter sa anniversaire mm-hmm. mu nekk loo xam ni presque ci sa jaar-jaar ci sa dund. Mm-hmm. c'était la première fois ngay fêter sa anniversaire anniversaire boo xam ne nag 40 euh, ans nga doon fêter macha allah loolu am na am na am na am na am na jàngat. bu bu bu rëy rëy boo xam ni borom xam-xam yi dañ ko ciy def nit bu demee ba dugg 40 ans waaye yow aussi nga xam ni àdduna dañ lay bàyyi xel ban jàngat nga ci am aussi. jërëjëf Moustapha macha allah Oustaz kàddu yi rafet na lu mu wax loolu lu am solo la. ci kun boobu noonu. ndax nag suñu borom soo toogee di ko wéetal ci ay yoon. ba la loo ko. ñaan mu defal la ko loo ko ñaan mu nangul la ko ba mu moom ci la ma nangul loolu moo tax sama tur ñi ñaa ngi ci gis seen bopp bu baax a baax ñi may woo dafa bari ñi nga xamante ne xaw ma leen ñu ma naan macha allah sëriñ bi jërëjëf sa jafe-jafe bi ma amoon sa tur moo ma ci génnee bari na mënu ma xam loolu nag ñoo ngi koy sante suñu borom bu baax a baax vraiment Moustapha question bi am na solo waaw musuma feete suma anniversaire ndeysaan dëgg la anniversaire lu njaboot gi rek laa nekk ak ci waar bi xam nga euh, parfois boo nekkee kilifa am na nga xamante ne bu ñëwee da ngay bàyyi mu jàll waaye bii nag dafa tombe ak ñeent fukki at sama ñeent fukki at nga xamante ne mooy 40 ans te defe naa ne 40 ans ba mu jinne waxoon nañ ne sëriñ bi su amee 40 ans te ci biir 40 ans yi xam-xam bi yokku na fi am na tamit lu bëri lu fi feeñ ci 40 ans yi kon nga xamante ne 40 yi ba mu jotee macha allah actuellement man maa ngi naan defaguma dara ci wàllu faj defaguma dara ci wàllu ñaan donte def naa fi li nga xamante ne kenn defu ki ndax li ma def fi amul kenn ku ko fi def macha allah déplacement rek bu ma jógee fii dem ba Kaolack rek loolu rek loolu rek loolu rek lu lu rëy la. Euh, lu rëy la dem Kaolack woote ci esaat bi loolu rek dafa naa ne loolu kese palmarès boobu kese waxuma la nag dem géej fii ñaari yoon waxuma la dem dem dem dem parcelle vraiment li ma def ci faj euh, dafa rëy toog naa fii jàpp jinne Amérique toog naa fii jàpp jinne Guinée Conakry partout dans le monde France Belgique partout fii toog suma téléphone li nga xamante ne nit musu ko def nit musu ko xalaat ma toog def ko maanaam comme tubaab yi dañuy toog dañuy toog dangay toog fee di gisante ak nit di wax ak nit man ma toog fii di di gis jinne di jàpp jinne foofu di ko duma di ko xoj def naa lu ne ci faj toog fii nit nekk France ma ne ko jinne xoj jinne xoj ma ne duma jinne maanaam lu ma wax jinne def nga xamante ne lu garaaw la li nga xamante ne def naa ko ci faj ci histoire Sénégal ci wàllu faj nga xamante ne macha allah loolu dañ koy sante suñu borom defe naa 40 ans yi nag ba mu ñëwee ndeysaan taalibe yi ñoo ko jël charge muy waa international muy waa national vraiment ñu waa national defe naa ne ñu génnee un million deux cent vraiment am def ci taxawaay bu am solo vraiment gérer añi jëwriñ ajaratu xadiba jëwriñ ajaratu xadimbuub macha allah jëwriñ galaay sey su ma limee damay juum macha allah jëwriñ Fa Bakary Sonko jëwriñ Fama Sow jëwriñ Dikel Sow jëwriñ Gala Sow mule mule yëpp vraiment bu ma limee damay juum ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu vraiment ñu ñu gérer sama anniversaire jëlal ma traiteur vraiment décor ñu def lu ne lekk yi naan yeeg dara manqué wul. vraiment ñu sagal ma bu pare def ay cadeau yu bari ñoom ñëpp mënu ma lim vraiment ñu sargal ma bu baax a baax vraiment ànd ak suma jigéen ajaratu nday Cheikh vraiment ak mule mule yi ak taalibe yi ak xariti am di jàmm yi vraiment ma kontaan ci lool salier lool vraiment 40 ans bi nga xamante ne macha allah xam-xam baa ngi yokk bu baax a baax baatin baa ngi yokk secret yaa ngi yokk macha allah loolu Moustapha dafa nekk lu xamante ne lu ma marqué suma àdduna ndax musuma def anniversaire te xam nga ne 40 ans yoo ko amee rek macha allah. Euh, ñeent fukki at defe naa ne góor dëgg la wax balaa moom mut góor day am ñeent fukki at te defe naa ne borom xam-xam yi am na bu ñu demee ba am 40 ans suñu lu bëri suñu borom ci la leen di yónni waaye man awma 40 ans suñu borom vraiment jagleel ma li ma am ci wàllu xam-xam li ma am ci wàllu baatin nga xam na yàlla rek moom mun a maye macha allah waaye nag li ñuy wax li ci kanam raw li bët sant bi dugg nañ ci 40 dinañ gën a gis ay mbir yi gën a yéeme ci Thierno Moule Sow dinañ gis ay mbir yi gën a doy waar ndax jinne moom jinne bu la waxee dara dañ ci bàyyi xel ndax fii ñu nekk nii jinne yi waxoon nañ dinaa am lii pied dans l'eau waxoon nañ ko macha allah defe naa ne actuellement maa ngi nii ci ci ci pied dans l'eau bi euh, vraiment ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax macha allah di ñaanal taalibe yi di ñaanal mule mule yëpp nañu ànd vraiment góorgóorlu liggéeyal yàlla ak yonente bi vraiment ànd liggéeyal sëriñ bi vraiment macha allah vraiment xam ne li leen yàlla may ak li leen yàlla jox. vraiment loolu lu rëy la te mu le mu lay xam nañ man maay kan ndax képp ku ci jaaxle guddi boo tëddee munoo nelaw doo woo kenn ku dul Thierno Moule Sow nga koy woo maanaam foo ne ma fekk la fa aussi kon nag ñu ngi sant bu baax a baax. jërëjëf sëriñ bi on me fait signe le temps qui nous était imparti est largement dépassé xanaa ñu def benn dernier tour de taabu rek pour mun a tàggatoo Matar leen ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy. Hmm. ñu góorgóorluwaat sëriñ bi rek jox ko wàccuwaayam. di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal madame Sow laa ren tubaarkàlla di ñaanal rahmaani rahim ñu yàgg fi dund ba def lu raw li seen baay di def tubaarkàlla di ñaanal taalu yi ñoomit ñu gën a góorgóorluwaat di ñaanal national bi ak international bi ki nga xamante ne ay porte-clés mën naa tere sa oto tàkk loolu ndam lu rëy la ñaan la baatin la ki nga xam ne ay photom boo ko defee ci sa kër jinne mën na faa bañ a dugg rab mën na faa bañ a dugg dëmm mën na faa dugg loolu lu rëy la ki nga xam ne bigam boo ko amee examen boo dem nga jàll ko loolu ñaan gu rëy la vite fait bien fait bi nga xam ne tubaarkàlla saa yoo ci amee biteel teg ko sa kër sa kër dara du fa xew jàmm dong nga fay am loolu lu rëy la loolu ndam la waaye nag Sénégal dañoo gaawute tiitaru bu ñuy tiitaru ci jàmbur la ñuy tiitaru duñ tiitaru ci seen mbokk waaye li mu def fii ci biir réew mi bu doon bitim réew benn woykat dafa woy na ma quitté pas mm-hmm. ñu may ko il loolu la coon sekk wax ba dee gars yi di ko reetaan mais dëgg la waaye moom mii tey jii bu Sénégal xamoon li ñu am dëgg no partout dans le monde dinañ ko fa wone président bi sax fu muy jëm danaan ko kaay xoolal ma yoon yi bala maa dem hmm. li nga wax léegi buggoon naa cee ñëw péage bii ngay gis ak stade yi yenn bërëb yi ñuy tabax bala ñu ko tabax dañuy war a woo ku mel ne alaaj Thierno Moulay Sow hmm. ne ko xoolal ñu bërëb bii mu dugg xalwa xool bërëb ba leen possible na ñu dox faa tabax ndax jinne yoonam kenn lu ci jaar xanaa alaa cenn mu lay soo ko sañ ngeen baal maaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf doyen xanaa di leen gërëm di gërëm xaaj Moustapha di gërëm Maxtaar Ndaanaan jërëjëf waaye di gërëm sëriñ bi bu baax a baax itam ci toogaay bu jekk bi macha allah ci ngoonu àjjuma gii nag nga xam ni nag loo am solo la fa tabaarakallaa doon loo xam ne njëriñ rek la ci ñun wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla nag ah yàlla guddal fanam yàlla wéral ko yàlla dëgëral ko ndax sànq rek ñoo ngi wax wax dëgg yàlla ñi muy faj eh, ak li ñuy fay keroog rek maa ngi ñi ngi koy waxtaane man ak yow eh, nit bula la bu la sëriñ bi faje ak loo mën a fay loo mën a fay jàppal ni li yàlla di fay sëriñ bi ëpp yow li nga koy fay ndax itam bu la bu la bu la bu la seetaanoon yow sa àdduna fa lay yem kon ko fay ku joxe milliard du ma wax sax fay waaye ku contribuer milliard ci sëriñ bi faj la pour sa wér gi yaram jàppal ni fayoo sëriñ bi jàppal ni fayoo sëriñ bi wax dëgg yàlla bi ci des itam wax dëgg yàlla euh, taxawaay bi mu am ci jaamu yàlla yi loolu tamit euh, taxawaay bu mat a saluer la taxawaay bi mu am ci jaamu yàlla yi mm-hmm. taxawaay bu mat a saluer la fii gisoo fi benn sëriñ mm-hmm. nu mu mën a sant ku mu mën a doon mm-hmm. kuy génn ay cent onze millions cent seize million ni lii dama koy jox jaamu yàlla yi moo xam ku ma xam ak ku ma xamul te soxlawu ma ci merci mhm. soxlawu ma jërëjëf mhm. soxlawu ma thank you soxlawu ma jaaraama soxlawu ma ci dara bu ma ko kenn wax ku jël rek jàppal ni yàlla nga tàllal loxo yàlla moo teg ci sa loxo ndax yàlla kat ba mu tàllalee loxoom dani man zal ladi yuqridu llaha xasana yàlla nee na ana kan mooy lebal yàlla bor bu rafet alaa Thierno Moule Sow nag lu mu am jël na ko lebal ko yàlla mm. lebal yàlla mooy mooy lan mm. mooy nga defal yàlla ci jaamam yi nga xam ne mm. amuñu kenn ku ñu yaakaar ku dul yàlla amuñu kenn ku ñu yaakaar ku dul yàlla ñooñu nag bu fekkee ne da nga fee nekkal yàlla seen yaakaar yépp ci yow lay ñëw bu weeru koor jotee seen yaakaar yépp ci yow lay ñëw moo tax moo tax Euh, moo tax bi ngay wax naan naroon na tax dem umra ma ni ah sëriñ bi bo dem boo demoon umra yaakaar yu bari dina tas ndax weeru koor bu jotee seen yaakaar yëpp ci yow la jëm si euh, suukaru koor yeeg mhm. ndogu yeeg jàkka yeeg jumaa yi amul jàkka wala jumaa ci ndakaaru gii booy wax lu dul ba ba wala naayib ba wala noddukat ba nee na la allah cërno mu la saw teraangaam mi ngi fiy ñëw bu dee ndogu ndogom mi ngi fiy ñëw bu dee mokketi jàkka ji bu dee jàkka ju ñuy defaraat boo demee ba ci hôpital boo demee ba ci hôpital muurum koor yi boo demee ba ci hôpital yi yi ñi nga xam ni tey néew yi nga xam ni amuñu amuñu kenn xamul seeni i borom euh, buñ leen di defar ala cëru mu la saw day jël daanaka daanaka la ñuy sànge néew yeeg lañ leen di préparer lépp moo koy def daanaka ñi nga xam ne ñooy yóbbu néew yi jullee suul dong lañ ciy def ala nu mu la moo leen di defal càngaay ah liñ leen di sàngee moo koy def parfum yi lépp moo koy jënd yóbbu ko fa mais doyen yooyu ay jëf yu rëy la ay jëf yu rëy yooyu ay jëf yu rëy la yoo xam ne dañ koo war di wax tey boo ñëwee këram gii ku ñëw tey sax ni man kat sëriñ bi taalibe laa nangam ak nangam man dama laa bëgg a liggéey rek affaire yooyu noonu danaan la doomu aadama yàlla da koo teral te doomu aadama dafa am ak baal ma lay fay salaire danaa la doomu aadama yàlla da koo teral doomu aadama dafa am ak donte taalibe nga bëgg nga maa liggéeyal de gratuitement hmm. waaye bàyyil ma lay fay salaire lu tee ma lay ñaanal mu lay fay te fay gim lay fay du tee mu lay jox ndékki di la jox añ di la jox di la jox reer di la may téléphone di la jox yére di la defal lu ne te nit nag bu lay fay weer bu lay fay weer amalatul amalu la ndékki amalu la añ amalu la reer amalu la yooyu yëpp vraiment yaa ko war a ci li lay fay waaye nag mbaax weesuwul ba booy fay nit ki yooyu yëpp nga wëlbatiku di ko defal te fayeeku ko te fayeeku woo ko nag mooy doy mooy doone yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nag sa waajib borom bari yéerum or ba ca Medina nag ma ngoog kon loolu waaw doone xayru ngi nii jant ak weer la ku mu tim bul dox ci kaw suuf sama waaj moo neex a faral mhm. yëgaleel kon nag doyen euh, loolu daal gestes yooyu vraiment day jar ñu ñaanal sëriñ bi nag yàlla guddal fanam te incha allah yàlla dina guddal fanam de. waaw ah, dina guddal fanam de. jinne wax nañ ko. waaw yàlla dina guddal fanam ndax yàllaa ko njëkk a wax ci alquran. Mm-hmm. wa amma ma yanfa'u naas fa yamkus fil ard yàlla nee na kii jariñ nit ñi. kii jariñ nit ñi. yàlla nee na kenn mënu ko fay tere yàgg. Mm-hmm. kenn mënu ko tere wér. ndax kii jariñ nit ñi man yàlla maa ko samp. ala Thierno Moule mi ngi jariñ nit ñi ci seen wàllu àdduna mi ngi jariñ nit ñi ci seen wàllu yaram mi ngi jariñ nit ñi ci zahir mi ngi jariñ nit ñi ci baatin kon incha allah loolu dañu koy ñaan rek waaye itam yàlla dana ko def incha allah doyen ñu ngi leen di gërëm bu baax di ñaan yàlla yàlla nu yàlla wana wanalewaat ci jàmm yàlla may ñu fekkewaat beneen émission li ci jinne incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah Moustapha looy tàggatoo euh, Euh, ci émission bu mag bi ñu reprendre muy li si jinne nga xam ni mooy émission sëriñ bi xalaatam la moo indi émission bi euh, bokk tey ci émission yi nga xam ni macha allah àdduna yëpp dañ koy bàyyi xel ci xalaatam kon ñi ngi koy ñaanal euh, mu yàgg fi lool te nag daf fi yàgg lool ah di ko ñaanal xéw xéwal yi gën a yokku ah di wax ni kenn du alaaji Thierno Moule Sow ah moo mën ci social yi ah moo moo ci nitam moo respecté doomu aadama moo jox cër doomu aadama ah kon ñu ngi koy ziarewaat bu bu baax a baax moo neex àndal également nekk sëriñ boo xam ne ku dëggu la lu ngeen di ànd ànd ah du tee ah, bu dëgg jotee mu wax la dëgg ba pare ngeen continuer di ànd muy kon continuer également di la di la defal teraanga kon xam nga kii moo bëgg Seydina Mohamed bu mu jeex takk takk ah kon euh, di ziar Mamadou Aliou Sow euh, euh, di di di ñaanal Mamadou Aliou Sow suñu baay jooju yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Kamara macha allah di ziarat madame Sow ren di ñaanal aussi Prince Moulé 1 ak 2 ñu dem ba sut seen i waajur Abdou Aziz amoon nañu mbégte. jërëjëf sëriñ bi looy tàggatoo. jërëjëf di am kontante ak mbégte lool ci occasion bi tey macha allah mooy li ci jinne jërëjëf Oustaz Babacar ci xam-xam bu sell bi macha allah jërëjëf Matar le grand tiktoker jërëjëf Moustapha jërëjëf doyen jërëjëf ñi ñuy seetaan jërëjëf ci caméraman yi macha allah jërë ngeen jëf ci ci ci déglu bi ak euh, seetaan bi nga xamante ne li ci jënne moom dafa nekk émission bi nga xamante ne émission bu am solo la. defe naa ne bu soobee suñu borom bés ni ki tey incha allah dinañ ko reprendre bu soobee suñu borom dinañ gën a góorlu vraiment même donte amuñu jot rek waaye dinañ gën a mën a toog di gën a waxtaan ndax tey développé nañ fi lu am solo kon nag ñoo ngi sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp vraiment di nuyu Aliou ci réalisateur bi macha allah di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu suma taalibe yi vraiment di am kontaan ak mbégte di ñaanal ñëpp jàmm di kontaan bu baax a baax doyen ñoo ngi sant ñëpp. ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla def jàmm ci senegal yal na yàlla def jàmm ni ko Oustaz waxee man teraanga laa xam man comme ni ko waxee nit bu ñëwee jébbalu ci man sax ni ko Oustaz waxee <coughs> dama lay daggal salaire chaque weer ma lay jox. am na ñu may woo dañu nekk ci yeneen kër sëriñ ñu ne man kat nekk naa fi vingt ans ci kër sëriñ bi nekk naa fi quinze ans mënuma am dara sëriñ bi duma defal dara bugguma am dara chaque jour ñu woo ma man sëriñ bi dama la gis dama la naw parce que dama gis ni nga nekk ak sa taalibe yi barke alxuraan ci ay kër kilifa yi nekk fii ci senegal seen taalibe yi dañu may woo di ñaxtu dina ne naa leen ñaanal pour ñu mun a jóge foofu ñenn ñi sax dañu wax ne ñoom dañu leen di noot ci kër gi duñ fa mën a jóge ndax ñu ne sëriñ yi duñ leen defal dara dañ leen di utiliser rek waaye loolu amu fi man boo fi nekkee damay bëgg nga avancer damay bëgg nga yokk defal la teraanga ba keroog nga ma woon leneen man noonu laay doxee man nitu teraanga macha allah di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla def jàmm vraiment ci émission bu mag boobu mooy li ci jinne xam naa ne ñëwaat nañ incha allahu dinañ gën a yaatal dinañ gën a indi xam-xam nit ñi dinañ gën a kontaan ci li ci jinne macha allah. jërëjëf euh, sëriñ bu mag bi jërëjëf euh, Matar Moustapha Fall jërëjëf oustaz Babacar Dieye wax nga ko léegi la répétition et est pédagogique.

qui a révolutionné la médecine traditionnelle tey parce que wax naa ko à l'entame de l'émission ma ne leen tey suñu maam maamaati maat yi nga xam ne ni tey jiitu nañu ci këru dëgg yi te doon yëngatu ci faj ku leen fekk fañ tëdd yee leen ne leen ah am na sëriñ un jeune marabout qui a quarante ans juste bu jënd une immeuble de trois cent millions ki se déplace dans des véhicules de luxe di yor ay iPhone en or di sañse sañse bu rafet yor njaga boo tam mettre leen dans les meilleures conditions tey xam naa ne tey une clinique qui n'a rien à envier aux grandes cliniques modernes dans ce pays Matar s'il vous plaît may ma ma daaneel s'il vous plaît Matar ne leen une clinique qui n'a rien à envier aux grandes cliniques modernes du monde tey pour la première fois dans l'histoire de la médecine traditionnelle ñu gis ko vous di dit je souvent la répétition elle est pédagogique ki nga xam ne ni lu mu liggéey ci loxo ndeyjooram du mataa daf koy génne ci loxo càmmoñam te it liñ naan gën a yege gën a jege gën a yey ñan la mooy sa famille et quand on de sa famille waxuñu ni mu bokkal ci deret wala ci meen mais dem na ba ci ñi nga xam ne ni tey yàlla daf leen boole tey ci ëttam bi tey ñu fi daan seen doole di fi am seen wërsëg kon nag nangu nañ dogal bi te incha allahu rabi Thierno Moulay Sow ca kaw ca kanam rek tey nag defe naa ne lii mooy la première émission organisée ici pour ceux qui connaissent l'emplacement de l'immeuble situé à la cité Djilimbay immeuble L plus 3 nous sommes ici dans ce luxueux salon situé au troisième étage dans la nouvelle clinique de El Hadji Thierno Moulay Sow le grand marabout le maréchal the king of the all the king le phénomène de l'univers et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la TMS TV pour notre émission Liss Djiné merci et bonne fin de soirée